fii Cissé El Hadj comme directeur développement bu njëkk mooy ñu considérer la mooy mairie bi nangu nañ leen jox benn espace pour ngeen exploiter li nga xamante ni moom mooy seen i compétence léegi développement boobu nag yéen artistes yi yéen a war a mën a gën a jàppale seen bopp wane organisation boo xamante ni bu yanu lañu xam fi ngeen jëm parce que xamaguñu fan ngeen jëm Kër Massar xamaguñu fi ngeen jëm yéen a ngi wax ni Kër Massar Nord la waaye ba tey mbir mi dafa mel ni da ngeen ko tijjil yeneen i yeneen i artistes mu mel ni daal yéen amoo leen benn objectif daal affaire bi amul organisation da ni takkale non non non man loolu lu ma lu ma ko nangu la parce que bu dee Kër Massar Nord. waaw ngeen ubbi yeneen i artistes dafa mel ni mbir mi amul organisation pëcc xoolal. non non fii ñi fi nekk ñëpp Kër Massar Nord lañ dëkk cest moom moo nekk euh, mairie Kër Massar Sud mais artiste la dafa ñëw fi en tant que invité. mais amul carte membre association. kon association bi Kër Massar Nord. Kër Massar la yam ñi ci bokk ñëpp Kër Massar Nord lañ la. c'est-à-dire kii dafa ñëw fi en tant que invité. ba dama noonu rek en tant que invité la bu fi ñëw ba ko benn. parce que leeral loolu sax war nañu war a mën waaw kay. moom ah. Massaar waa la Bongo benn boy il est Kër Massaar waa quand même voilà. mais mais kës ñun dàquñu lool dàquñu sari def benn je sais benn kii bu nga xamante ne day fédéré Kër Massaar bi yëpp. Kër Massaar bi yëpp léegi xam nga tamit mbir boo koy jaay dafa am marque boo koy jaayee tey bu dee da nga koo da nga def sa marque Kër Massaar moom loolu léegi bu dee da ko bëgg a ubbi est bi.

les kii ñu koy wax ni mooy Kër Massar département bi yëpp lay nekk. commune yëpp commune yëpp su boobaa ak man moom moom xam nga lan la res mooy Kër Massar artiste Kër Massar noor yi moom la res ñee Kër Massar sud ñoom dañuy dikk ñoom tam je sais pas ak seen xaw ma ñoo xam ban noor la seen association di porte mais bu boobaa turu association nord sud dootu fa amati xam nga lu fay am Kër si ci boppam moo fay nekk en tant que département. parce que am na beneen association sax boo xam man bokk naa ci kii bokk naa bokk na ci mais boobu Kër Massar département bi kese la la la kii la la la ëmb quoi moom. kon lan mooy njëriñu ngeen di taxawalaat beneen association. non boobu bokkul xam nga boobu ay hip-hopeur kese kese kese la mais bii dafa am ay mbalaxman am ay règlement am ay culture quoi. am na ñu tëgg boobu. waaw mais yéen ñëpp ay artistes ngeen. waaw lan moo tax mënoo leen def benn groupe ngeen teg benn ñëpp xam ne mbooloo mooy doole. ñële xaaj fële ñële xaaj fële li ngeen bëgg a xeex ci Kër Massar est-ce que jëlee autorité bi leen bëgg a jàppale sax loolu di ngeen ci mën a def dara. mooy non c'est-à-dire xam nga problème bi. mooy que ne ak man nay bay noor ñeneen di bay si. da nga ñëw bëgg expliquer que yow. waaw Kër Massar Sud am nañ seen association. am nañ association waaw am li ma mën a yëmbal noor yëmbal sud. li ma mën a dégg li ma mën a dégg mënuma ko comprendre. waaw te damay bañ ngeen jaay seen marque wala waaw. loolu laay bañ yéen ci seen ki leen dégg ni ngeen di waxee. waaw yéen yéen a noor. waaye da ngeen am yéen yéene ñëpp ñu ne ñu bokkul noor ñu bokk yëmbal ñëpp a ngi ci biir association bi léegi foog ngeen tegal Kër Massar lu leer foo leen jëm léegi association bi nga xamante fédération bi nga xamante ne bokk laa doon tuñ fédération boobu dama la koy wax dans le cadre de bu ñu waree def benn activité bu mag boo xamante ne dàqul ñun ñu liggéey ak waa Sine mais fii ñu toll nii nii instant instant bii ñu toll nii Kër Massar Nord ak man moom Kër Massar Nord li mu englobé loolu ci loolu lay dox ba pare ba ba pare ba taxaw ba moo waral lii parce que tey fii ku dëkk sud boo fi waroon ñëw nga def fi benn affaire da ñuy consulté ñun foofu laa lay waxee boo ñu. am di consulté te juddoo boo def amagoo leen <laughs> Ah, ok, je vais appeler ça. Mais comme on est là, comme, comme on est aussi en train de parler, on est en train de parler de nord et de sud. Je vais essayer d'introduire Paco Ben Boy, je vais mon cadre. Mais aussi, nous avons un cadre qui doit être sali parce que nous avons depuis le début, nous avons dit demain, déroulement, avancement avec l'association Mikael, je vais vous dire Paco Ben Boy. Moi, artiste bi nga xam moi, mooy artiste Kër Massar waaw parce que ñëpp daanaka bu ñu nekk en tant que euh, rappeur on parle de Paco Benn Boy hein. boo juumee nga da nga da nga da nga da nga da nga da nga il a été là depuis une décennie presque ah et il est actif jamono yi dib la ngaaga ba léegi il est actif moy fi ngi projet donc récemment cette année ci génn na projet def na ay show pako ben point là duñ ko bàyyi pour le tew ñu nada bismillah oui salam alaykoum may ni mbolo bi yëpp ñu ngi teew di len bal ak ah, di len balu ak ah. yow yalla ko tewé eh, ay ah, ak bari bari bari bari bari di nuyu autorités yi fi teew yëpp di ci jiital président Dame Thiam président Paul ñu ngi lay ziar El Hadj ñu ngi ak ak man yëpp ñu leen bëggee di leen ziar man maa ngi tudd Babacar Niang mais ñu ma xam ci Pago benn boy je suis artiste waaw c'est bon waaw ma ne man maa ngi ci Pago waaw nekk rappeur nekk acteur culturel et développement di yëngu ci domaine yu bëri voilà d'ailleurs génn naa album def naa ay ay concert def naa ay affaire yu bëri sur le chargé culture conseil communal bu Kër Massar Sud voilà mais ñu si bëri na ñoo yaakaar man ci mairie bi laa. Paco comme que je pense que ni dañuy xaw a def benn kii ma sàcc la tuuti rek. ñu bàyyi Paul ñu bañ kaa tenir bu yàgg moom mu tàggatoo. Euh, parce que moom aussi yaakaar naa ni am na yeneen yitte yu ñu ñoom ci campagne lañ nekk amuñu jot waruñu ko maintenir lu bëri voilà donc ñu ñu ñu ñu ñu bàyyee euh, suñu invité bi nga xam ni moom moo fi teewal Anta Babacar Ngom indi tey programme bi expliqué leen ko surtout ci volet culture bi moom mu mu jox la su woon par rapport ak yóbbu tey aussi ba ngi leen di mais beneen bi aussi félicité seen explication parce que lépp loo gis rek dafa am fu muy dooree te souvent ndorteel dafay métti mais maa ngi leen di encouragé ngeen continuer ci lancer bi ngeen nekk beneen bi may am aussi mooy lancer appel au Sénégalais ñi yeewu parce que addina bi toll na foo xamante ne il faut que ñu ndaw yi yeewu yeewu mooy lan nit ñi xam lan mooy les enjeux de ce pays là parce que réew mi toll na foo xamante ne il faut que ñun ndaw yi jël suñu destin en main mooy ñun dañoo jàpp ne li nga xam ne jot nañ ko fi gis. yoon nañ ko fi dund depuis mille neuf boo seetlu suñu dund dara changé wu il faut que ñun tam ñu jël suñu dund ñu changé ko suñu bopp changé suñu bopp mooy lan falum njiitu réew du yëfu caaxaan boo xasee ba joxe sa kàddu rek c'est fini c'est pour cinq ans donc nag il faut que ñun ñu xool exactement kan la ñuy jox suñu réew parce que réew du foofu bàyyi ñun nag ñu jàpp ne ci li nga xamante ne mooy réew mi nga xam ne ñun dañ koy laaj muy la présidente Anta Babacar Ngom di la présidente du mouvement alternative pour la relève citoyenne ñun ci li nga xam ne jot nañ ko présenté comme projet jàpp nañ ne Sénégal bu ko joxee mën nañ ko yóbbu fu sore sore mais beneen bi aussi la classe politique bi nga xam ne jot nañ ko fi gis moi je pense que ñun ñëpp xam nañ leen tàmm nañ leen mais il est temps aussi ñun ñu changé réew mi bu question ndaw rek mën na ko yor déedéet waaye jàpp nañ ne ndaw bu yor xam-xam bu xam fu muy jëm aussi tam mën na ko yor beneen bi aussi ñu génne benn équivoque mooy lan la présidente Anta Babacar Ngom ñëpp xam nañ ne jigéen la mais nit ñi ñu génne seen xel ni jigéen mënta yor réew parce que jigéen yu bari ñoo ngi yor kër kër te jigéen bu yoree kër aussi itam gis nañ kër yi ñu ko yoree donc nag man may woo Sénégalais yi présidente Anta Babacar Ngom ñun gëm nañ ne mën na yor Sénégal ak par rapport ak projet yi nga xam ne moom la am am na xam-xam bi am na dayo bi te bëgg na réewam parce que mënoon na ko fekk mu nekk ci leneen lu mu nekk parce que yàlla may na ko loo xam ne mënoon na toog fu mu nekk di dund dundam te du am benn problème mais Sénégal moom mooy daw ci moom mu jàpp moom Sénégal moom moo ko toppandoo ba fi mu toll dafa war a delloo njukkal Sénégal sur ce mu ñëw ne dafay bokk ci li nga xam ne moom mooy développé Sénégal parce que dañoo jàpp ne réew ñu koy yor dañoo am solo parce que fii rek ngay gis Sénégal gis koo xamante ne yàlla du ma ne yàlla may ko dara waaye mu doon koo xamante ne jàpp nañ ne reggul mais ñi jël ko fal ko suba mu regg après suba mu am nu mu mel ak ñun mais jàpp nañ ne comme au aux États-Unis nit mënu fa réew. te amoo loo yor parce que ku yor ku regg yaakaar mu am lu mu soxla te la présidente Anta Babacar Ngom ñëpp gëm nañ ne am na loo xam ne yor na ko as tuut te lu mu yor na as tuut yaakaar mu soxlawul li nga xam ne moom mooy alal réew mi mu bëgg moom mooy defar réew mi. ñi woo Sénégalais yi ñu xool parmi les dix neuf ñu xool loolu programme ñu xool tam seen bëggub réew parce que ñi fi nekk yëpp jot nañ leen essayé donc nag nañ essayé lu bees. ñu fal ki nga xam ne mooy la présidente Anta Babacar ñun gëm ne ak moom le Sénégal va changer et j'appelle tous les Sénégalais de voter pour Anta Babacar Ngom que les jeunes tamit ñu mën a jël seen destin en main mos Anta Babacar Ngom comme ni muy ay dernier cadeau euh, ñu kontaan vraiment ci sa teewaay ñu ah. je pense que ni euh, jël nga en charge yóbbante yi xam ni gars yi ci plateau bi yëpp. yóbbatal nañ la ko te incha allah incha allah dinañ dinañ gën a occasion pour gën a yaatal si en tout cas merci beaucoup tàccu leen ma Paul bu baax a baax a baax ay ay daanaan lañ vraiment donc ñun aussi ci Paco benn booy lañ nekkoon ne ah, on va continuer avec Paco benn booy bien sûr. oui merci beaucoup ñu ngi lay ziaraat. jaajëf waaw di la bëggee man nag man it sànq fi ma tolloon mooy man sur le service public bu conseil communal mais gars yi bëri dañuy jàpp ni man ci maire bi laa nekk conseil voilà conseil communal day doxal mairie bi day doxal. mais ñun normalement suñu amee suñu programme wala ñu am suñu activité mairie bi moo ñu war a subventionné moo ñu war a accompagné d'accord voilà mais comme Sénégal voilà fii gis nga ak yéen situation dëkk bi ak yéen affaire yi ci liggéey bi aussi tamit voilà gis nga suñu maire bi laa jaata moom mi ngi soog a mi ngi soog a génn voilà euh, presque un an mi ngi woon ci prison bi mais teewul ñun ak suñuy moyens ñu ngi yore ma sow baax a baax jàmbaar la jàmbaar la voilà ñun ñu ngi doxal ci ñun war a doxalee parce que d'ailleurs man ku ma xam xamu ci développement je suis artiste mais ku ma xam tamit xamu ci ci développement président Dama ngi ne moom mooy coaché d'ailleurs euh, démb rek lañ jógee forme 40 jeunes yu nekkoon fii ci jeune bi may euh, ci département bi may leen formation gratuite. tey très bonne initiative foofu benn booy. voilà ñu am ci ay retours yu parce que ñun euh, en tant qu'artiste retour loolu

orienter leen war leen naka la ñuy def à, ba ba jéem a ba jéem a ba jéem a tey ku ci am say projet naka nga koy réaliser parce que à chaque fois da ngay gis artistes yi ñoom kese ñoom ñooy ñoom ñooy nekk ci luxe ñoom ñooy am voilà fan si da leen di topp muy ba ci bëri ba ci côté yëpp gars yi à chaque fois ñoom ñooy nekk au devant de la scène mais pourquoi toujours fan suñu fan yi ñoom ñooy féetoo tàcc tàcc chaque jour voilà boo génnee album ñu jël la mais ñooñu pourquoi pas tey nga nga jéem a organiser nga jéem a defal leen ay formation am loo def ci ñoom ba tey boo fi nekkatul say son bu fekkee tey mënu mënu mënu leen éveiller yow la main des choses ñu ne a ah, kii kat def na naa nangam la main des choses parce que tey benn nit sax boo ko tabaxee rek moo gën a tabax ay junniy jumaa voilà nga am loo def ci ñoom tey man voilà euh, volet boobu laa jël te moom laa yàgg jël voilà di jaaraat gars yi tamit xam nga di leen encouragé di jaajëfal waa noonu tamit di leen wax ni tamit yéen waaw parce que léegi sànni kàddu foofu noonu sànni kàddu ci association bi non association bi tey damay ñëw li li euh, ci président Cheikh lu mu wax mhm. parce que moom tamit mi ngi ci département bi mais di def liggéey bu am solo macha allah voilà di def liggéey bu am solo moom président Dame mais tey dafa wax wax bu am solo voilà tey euh, gis nañ Kër Massar ba mu daj espace amatu fi mais espace bi rek moo fi nekk mais man leen laay leen benn question laay laay laay laajaat tey pourquoi pas moom li mu wax centre bi nekk centre départemental bi nga xam te ni tey amul nord amul sud man président daam sax du laa fekk moom tamit ñu ngi si nord mais sax du dama naa nga yow du nord du sud yow yaa ngi pour département Kër Massar voilà yaa ngi pour département parce que moom waaw waaw non non ba léegi ba léegi mën ngeen a jël mais léegi mu dal ko ñaareel fële muy ñëw sud dama koy dama koy utal fële defal lool xam nga non non si dama dama koy ñaaral. mais sa question bi nag xam naa ne directeur aussi dinañ am lu ci tontu parce que moom lañ jox foyer bi mm-hmm. ak man am ci ab purpose mm-hmm. moom mi nga xam ni moom mooy gérer foyer des jeunes parce que nekkul maison culturelle aussi mm-hmm. loolu aussi il faut ñu bàyyi ci xel baax baax donc sa question boobu noonu moom mi am na ci tontu aussi waaw merci beaucoup voilà foofu laa foofu laa foofu laa ni euh, naa naa ci dut baaraam tuuti mooy euh, luy président si sa wax pourquoi pas ñu gën ko yaatal ba département bi yëpp tey parce que man muy man muy keneen ak keneen ku ci nek yaa ngi say business bop yaa ngi am say partenaire bop voilà tay euh pourquoi pas tay fi buñ ko aménager won bo amé say gën yu jógee à l'extérieur ñom bu ñëw fi mu bu ñu nañoo fi euh pa ñu dem di jël ay hôtel wala dara pourquoi nga indi leen fi ni bo amé projet bi nga xamné mère dina ci gis sen bop nga collaborer ak ñom parce que man amna naa ay euh, partenaire yi nga xamné des fois ñom bala ñoo bëgg bala ñoo liggéey yow fa nga am euh, fa nga nek am partenariat ak mère bi ñoom ñu mën a dem lijjanti ay fonds pour mun a ñëw installé wu euh, pour mun a liggéey voilà pourquoi pas tey loolu bu ñu ko defee yaakaar naa de lay nekk di la jaajëfal aussi merci beaucoup. kontaan nañu vraiment Papa benn booy euh, ay question bi da koy tontu bala moo bala moo jógee ci ci DG DG tontu question bi nee na fi nga xam ne mooy chef lieu de département muy Kër Massar Nord am centre bu doy nii nii lan moo tax mu war a nekk centre Kër Massar Nord pourquoi nous pas une maison culturelle le département de a n'est-ce pas question merci beaucoup mais bon demain, euh, d'abord parce que euh, pour dire vrai fini euh, foyer des jeunes foyer des jeunes donc je peux dire que comme bu foyer des jeunes maison maison des femmes centre culturel tout ça centre euh, polyvalent yooyu noonu yëpp euh, mi ngi ci biir donc il faudrait ñu xam d'abord fi euh, foyer des jeunes là ba pare donc bu ñu foyer des jeunes ñëpp ci lañ bokk moo xam acteur culturel bi ñuy nek ci domaine sportif bi domaine éducatif bi et tout donc ñëpp la englobe juste dafa di qui boo xamante ne ñun ñëpp dañ ko dañ gis que ni Kër Massar dafa manqué espace espace culturel mais

donc euh, Kër Masar benn benn commune la woon yàlla dogaloon ñu am ci euh, foyer bi rek léegi nag chance bi nga xamante ne moom la Kër Masar Nord am mooy bi ñu xaajee euh, Kër Masar def ko en deux parties yàlla dogal Kër Masar nekk département ñu am ci ci biir Kër Masar Nord et Kër Masar foyer des jeunes bi ñëw nekk Kër Masar Nord mais je ne dirais pas waa Kër Masar Nord rek ñoo ciy bénéficié parce que y a beaucoup de personnes yoo xamante ne ñu ngi ci biir département bi dañuy parce que euh, duñ ne par exemple euh, foyer des jeunes ñu ci euh, xatal par exemple ñi nga xamante ne dëkk ñu noor di ci ibbi ñi nga xamante noor lañ dëkk ñun on est pour tout le monde certes mu ngi Kër Massar noonu mais képp koo xamante ne soxla na ko bu jege see incha allah rek ñu dañ koy ubbi yi donc foofu noonu il faut que ñuy xam ni carrément foyer des jeunes la mais c' est pas maison culturelle parce que tamit maison culturelle mën na juddoo ci foyer bi loolu mën nekk à exemple association bi à travers des waxtaan yoo xamante ne war a am xool carrément nan la ñuy alloué benn espace boo xamante ne euh, acteurs culturels yi carrément ñoo koy moomal seen bopp comme li mu wax ni c'est des choses yoo xamante war naa mën a ne milieu boo xamante ne forcément bu ñeneen jógee feneen ñu ne ah carrément acteurs culturels yi kat ku leen soxla fii nga leen di fekk tey jii nii yàlla dogal na ni looloo waral ñu euh, fii parce que tamit bi ñuy débuté fii ni ñun ñëpp gisoon nañ ñoom ngeen ngeen sollicité ñu ne leen pourquoi noonu noonu lañ koy defee keneen keneen ku ñëw ñu jéem a xool lan lañ la ba am ñu ci di jéggalu rek parce que euh, sànq sama doom baay dafa am question bu mu posé président je pense que président dafa doon jéem a daw xaw ndax dañ bëggul wax pour pour euh, frustrer des autres mais il faudrait ñu xam ni carrément association boo gis bu nekk dafay am identité te identité boobu noonu moom ñun tey jii nii mooy Kër Massar noonu il faudrait que ñeneen yeneen artistes yi ñu xam ni d' abord ak man bi wuyoon na tuuram ba pare c' est les acteurs non mais mais yaay ji hip hop géejewaay hip hop on a dit. waaw voilà pour waa géejewaay mi ngi noonu mi ngi noonu léegi man fi may fi ma fi ma bëgg a indee sama réponse rek mooy par exemple ak man ci ci lan lay euh, mën a ibbeekoo mën a liggéey ak ñeneen mooy si ay jumelage si ay jumelage par exemple tey jii nii ñu war a am benn euh, activité boo xamante ne c'est au niveau départemental ñu dem xool yi les euh, les acteurs de Yëmbal Nord Yëmbal Sud Malika et Kër Massar Sud et Jaxaay ñu jéem a xool na la ñuy fédéré loolu noonu def benn affaire boo xamante ne festival département Kër Massar bi la mais il faudrait ak man mu approprié wu li nga xamante ne tey mooy euh, turam ba maam les acteurs culturels de Kër Massar Nord que ñëpp xam ni carrément Kër Massar Nord moo ko tax a jóg et après bu mënee liggéey keneen mu dem liggéey keneen parce que tamit tey jii nii kuy ku nekk ñaan nga yàlla am benn ouverture pour mën a liggéey ku nekk mais il faudrait que président appuyer et après mën nañoo liggéey ku nekk quoi merci beaucoup. je pense que tontu boo solo dafa ñu jógee foofu rek ñëw si président daal parce que question yi posé aussi dafa am solo mu indi ji di jaara les gens ne comprennent plus da ko jox explication foofu maa ngi maa ngi maa ngi bëggoon a tooñ sax ma ne affaire bi war na mën a yomb de xam nga ak man lañ wax boobaa end bi la ñu commencé def fa des dañu xool ñu tudd man fii rek. doo ko ak mas quoi ah bu ñu waxee ak mas. ak mas ak bu ko defee ñëpp ñu nekk ay masarwa quoi. département bi pour de façon kon euh, ma ma ma wax leen ne gis nga nit bu fekkente ne ragal péete day xañ a Kër Massar Nord moo ko tax a jóg kon looy leen ci Kër Massar Nord bi ma rappelé rek ni Kër Massar département bi lu muy yaatu yaatu ñett kii ngeen fi am euh, Malika moo fi am foyer yëmbal Nord Kër Massar Nord Sénégal mu ngi ci acte 1 acte 2 et acte 3 acte 2 bi moom moo indi arrondissement arrondissement ñoom ñoo indi espace jeune Les nekk fële espace jeune la woon ñu def ko CEDEPS euh, ñu ko maintenant CEDEPS boobu noonu moom lañ bëgg def maintenant maison de la jeunesse et de la citoyenneté fii bu ñu fàtte centre polyvalent aussi am na Kër Massar centre polyvalent mu ngi fii unité 10 zone de recasement àll la kenn nekk fa li ngeen wax un esprit de... boo xam ne tey jii war na man a nekk mais nag mën na nekk loo xam ne tey jii mën nañ jëmbal li nga xam ne tey jii moo nekk fële comment dire euh, centre polyvalent fii Kër Massar Nord ñoo nañ leen bàyyi ñoom ñu def lu ñu man maa ngi yow ba yow xam nga ko tey maa maa ngi nuur jaxaay acteur culturel yëpp maa ngi liggéey ak ñoom voilà barki dem booy Ndiaye. mooy doomu département bi. merci dem booy Ndiaye pare nañ benn projet bu ak ñoom yoo xam ne tey jii on va parler.

ñooñu waruñ leen yemale ak ñenn quoi moo tax ñenn vraiment même ñun buñ ci amul soxla it ñoom la ñuy jaay dañuy pare pour ñëw lëkkaloo ak ñoom parce que peut-être suñu voix yegg na fa man foofu laa leen di wax sponsor yi ngeen di am nañu nekk seen premier partenaire actuellement première année yéen a ngi développé benn modèle économique modèle économique mooy la ñun lu ñu mën d'abord balaa keneen di ñëw même boo mën naree jox ren dama lay wax na la xaaral dafa am loo xam ne ci ñun la ay artistes yàlla may na leen lii bi ngeen koy def da ngeen tàllal kenn loxo man bi taxaw fi gis leen ngeen di dóor sama yaram dafa taw ma ñëwaat gis image yu mel nii c'est c'est possible mun na nek ane bi ni jël leen ko ngeen def li ngeen def mais képp koo xam ne teg na ci loxo valoriser leen ko andu leen ak kenn ñëpp ngeen àndal wolof laa leen làkk nag. ci foofu rek ngeen ngeen ngeen may ñu ñëw ñu accueillir sunu gan gi. merci beaucoup donc. Euh, président Moussa Camara moom mooy sunu invité tey.

da ngay bañ gars yi tooñ la ok merci beaucoup gars yi comme ni koy ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko annoncé woon rek ñu nekkoon ñun aussi ci échange en attendant doon ñëw jiitu la dañoo nekkoon ci ci ci waajal suñu bopp rek daanaka parce que bu ñu wax ci culture ñun ñëpp nekk ay acteur culturel gan ñi doon ñu ne nañu tàmbali mais ñu ngi la doon bàyyi xel donc euh, comme que yegsi nga mën nañ ko bàyyi mu nuyoo ñu jox ko kàddu gi parce que yow lañ doon xaar daanaka pour dugg ci thème bi nga xam ne tey moo la ñu war a waxtaanee muy Euh, politique de développement et politique culturelle donc bismillah. salaamaaleykum mbokki. maaleykum salaam. maa ngi leen di jégalu ci retard bi d'abord. dañoo amoon ay invité yu nekkoon tey jii vraiment loolu moo ñu teewoo tout d'abord di nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñoo toll ñu seetaan dañuy particulièrement ñi nga xam ne ñoo fi nekk yéen euh, bon di sant bi laa mën a wax bon dina nekk les acteurs culturels ci initiative yi nga xam te moom la ñu am nii am ne aussi tamit euh, comme ni ñuy wax diine ak jamono je pense que yéen a koy dundal quoi donc ñu <laughs> leen si merci beaucoup ñu koy adapté par rapport ak koor gi maanaam euh, li mooy njëriñu nekk acteur culturel nekk artiste maanaam da ngay adapté wu par rapport ak saison bi nga nekk par rapport ak moment nga xam ne koy dund euh, vice président bi rek ma bàyyi ko mu jox ko moom aussi comme que moom la ñuy seet si mu mu mu dalal ko bismillah alamin asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu nuyuwaat quoi di di dalal suñu invité yu yu yu mag yi di leen wax dal leen ak jàmm ci ci kër gi seesu ak man waa gis ngeen comme ni ngeen comme l'autre ñi nga ñi nga ñi nga fi wax dëgg yàlla ñëw nañ fi ñëw bu rafet ñu waxtaan waxtaan bu am solo échange ak ñoom ci ci dal mu nekkoon suñu grand bi ak suñu pa ñaari père yi fi ñëwoon wax dëgg yàlla keroog c'était c'était important quoi kontaan nañ trop ci loolu waaw di la wax ne yabal bi ñu leen yabaloon wax dëgg yàlla ñun amuñu jigéen réccu quoi parce wax dëgg yàlla keroog jàng nañ ci ñoom comme ñoom aussi ni ñu jàngee ci ñun di leen wax ne rek dal leen ak jàmm le président Moussa Camara waa am ñu ngi lay dalala jërëjëf jërëjëf vice président euh, joxal euh, kàddu gi euh, monsieur El Hadj Cissé moom aussi du ñàkk ni xam na gan gi lan nga ñu mën a wax ci moom ñu baale aussi nga nuyuwaale ko jërëjëf mon frère maa ngi nuyu président Moussa Camara maa ngi koy ziar baax a baax di wàcce waayam comme ni ngeen ko waxee dañu wax euh, culture dafay laaj acteurs yu mel ni euh, Pape Moussa Camara yor mouvement ak aussi am taxawaay bu am solo ci Kër Massar Nord rawatina ci département bu Kër Massar ndax ni ngeen ko waxee léegi ci thème bi muy euh, politique de développement politique culturelle mu nekk loo xamante ni tey euh, képp koo xamante ni acteur la euh, war na laaj ñu accompagner ko léegi nag damay laaj euh, président Pape Moussa Camara bi ñu gisee taxawaayam ci ñeneen yi fii ci Kër Massar ci gërëm yeeg sant yi lan la pare pour ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy artistes yi ndax laaj na tey am na ay direction yoo xamante ni nguur gi teg lu mel ni ministère yi ak aussi centre yi nga xamante ni nekk na ci lan la pare pour accompagner ko ñi nga xamante ni mooy acteurs yi ci nekk. bon salaamaaleykum damay dellu di nuyu nuyuwaat encore une fois mais aussi di nuyu sama partenaire bi nga xam ne moo toog di Dame Thiam vraiment dama am mbégte ba ma ko fekkee ci euh, plateau bi mu toog xam ne aussi tamit benn acteur de développement te lii rek moom moo ko ñor ah. donc encore une fois feneen foo mën a demaat aussi da nga ko fay fekk mais di ñëw aussi ci question bi nga xam te ne dafa euh, demandé par rapport ak euh, la jeunesse plus particulièrement euh, les acteurs culturels bon man dama mës a gëm ne aussi culture dafa bokk ci développement mais dafa bokk ci les poumons de développement d'une localité d'autant plus que plus particulièrement que Massar bi nekk moom donc nga xool tey dans les pays les plus développés boo ko demee tey ñoo ngi tudd seen ay artistes mais seen ay stars di leen promouvoir dans l'échelle internationale donc pourquoi pas ndax dama gis ne tamit loolu bu amee c'est parce que am nañu ko porté donc Kër Massar aussi war na am ñu ko porté ñu ko porté aussi tamit moom mooy jotaay bi mel nii d'autant plus que gis nañu tey euh, les acteurs ñoo ngi initié di def ay pas de développement. mais il est temps aussi tamit ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk ginnaaw mooy l' administration y compris tamit les autorités politiques ñoo ñu jàppale leen ci seen biir euh, activités yi nga xam te ne lañ def donc loolu day revenir ak encore ci développement buñ ko tuddee benn bu si nekk chaîne la amul benn bu si mën a dem bàyyi moroom ndax tey acteurs yi bu ñu taxawee di def seen initiative bi les hommes politiques toog jàppale wuñ leen day am lu soobee les hommes politiques bu ñu bëggee def aussi tamit seen politique de développement acteurs yi faale wuñ ne ko ci tam day am benn position ci donc il faut pratiquement collaboration boobu mu am donc c' est parce que bu ñu xoolee aussi tamit dëkk nu mu mën a demee rek lépp loo gis rek chaîne la day am ci fu mu jokk am fu muy wàcc am ñeneen ci donc bu ñu am blocage rek day impacté aussi beneen bi donc ñu mën a wax ne aussi tam vraiment initiative bi ñu ci mën a am ak yéene bu ñu ci mën a am aussi xam que nos frères que nos sœurs ñoom ñoo ci nekk ci biir di ko exercer mais di ko def de façon pacifique mais de façon citoyenne donc ñu war a mën a bañ a xool kenn ku nekk si appartenance bi nga xam te ne moom la nekk ñu bañee na fekk si jeu boobu noonu def ko en tant que des responsables mais aussi tamit def ko de façon tey par exemple humain pour ñu xam ne aussi tamit espace politique espace culturel yëpp ñoo bokk benn bopp war nañu mën a jàppale ci contexte bu mu mën a doon ñu bañ cee dugal l'esprit partisan quoi ndax l'esprit partisan moom mooy yàq lépp ndax jamono bii tey dafa nekk ci jamono boo xam te ne jamono bu naqaree waxee la ndax kenn ku nekk booy wax ak yaa ngi sóoraale ci may waxal àndul ak man donc surtout faak àndul ak man man du ma ko jàppale yaa ngi waxal ki ngay xamal ki ngay waxal koo xamante ni yow la àndal su nekkee yow la àndal amul problème lu mu bëgg naa ko defaral donc bu ñu duggee si côté boobu nag dañuy posé débat bi lépp donc dañu war a ànd déjà l'esprit patriotisme dañu war a jiital mais aussi de façon pacifique ñu mën ko def tamit tey façon euh, intentionnelle

parce que tamit ku waxal yàlla rek xam ne cadre bi c'est vrai que bu mel ni mu mel ni tey yéen a ko yéen a yéen a ko innové mais yéen a ko aussi aménagé ba mu mën a neex a toogee nii donc leen tey daal loolu c'est un pas de développement donc pour wax leen ne aussi encore une fois euh, damay lancer un appel à toutes les bonnes volontés ñu ñëw ñu jàpp ci lii mais aussi yéen tamit ngeen gëm ni tamit ñu jàpp ci ñàkk see jàpp yëpp mën ngeen defal seen bopp te nit noo bëgg mu mel rek moom lay mel te nit nu mu mën a mel donc loolu day bokk aussi tamit gëm bi ngeen war a gëm seen bopp ndax fii dara nekk fi a ah, mais tey boo xoolee dépôt bi nu mu mel mais li nga xam ne aussi tamit ñii fi nekk am nañ mérite si ban ko si ban koo c'est parce que bëgg gis nañu dara loo xamante ne tey ñoom gëm nañu ni ñoom war nañ ko mën a changer gëm nañu fii war nañ ko mën a def mu nekk dara mais gëm nañu aussi tamit ay par exemple fii war na bokk ci se ay espace d'échange don tey de façon très culturelle aménagé ngeen ko def ngeen ko de de de de votre façon tey loolu encore une fois vraiment su ma xoolee dépôt bi ngeen jël lu mel ni pën xam a pour wax ne Sénégal manqué wu dara fii ay acteurs culturels rek a fi nekk. may ñaan ngeen tàccul ma c'est l'œuvre de Karim il est parmi nous ah ci ci association bi la bokk ni acteur culturel moom aussi. exactement donc bu dikku lii nii c'est innovant. donc yaakaar naa fii xam-xam yëpp a ngi fi Sénégal dama ne xam ngeen xaw ma lan moo leen defee mais ñu amoon tey euh, les des matériels qu'il faut vraiment xamaa ne kenn du leen ndax création parce que fii ay personnes mûres expérimentées xam nga des personnes intelligentes ñoo nekk tey dans cette société ndax nit ku nekk am nga lu nelaw fi yow loo xamante ne buñ rek xamante ne li ngay rêvé beaucoup beaucoup beaucoup de suspense mais beaucoup de surprise aussi tamit ci cadre bu nekk si si macha allah président Dame ñu ngi lay xaw a fàtte de président daa ñëw rek nga yaru. waaw merci beaucoup merci beaucoup en fait c' est dama am contenté ah dama dama content bu baax xam nga wàllu culture la wax ngeen man bi gisee affiche bi. ba gis nit ñi moom ngeen invité euh, j'étais tellement content parce que xam nga lu tax ñun duñu waxal nit lu mu parce que dama dund loo xam ne biir Kër Massar man gëmuma tàllal loxo mais quand même nit bu defee da nga koy wax comme li wax léegi moom moom mon ami mon frère c'est le premier partenaire qui est venu war lañ ko yemale ak kenn loolu laa gëm ci képp koo xam ne yaa ngi taxawal Kër Massar foo mën di bokk nag man lijjantiwuma loo xam lu ma gëm moy résultat bi nga indi jëm ji toog je sais pas soo griyo ngeen baal ma mais dafa am lu bëri yoo xam ne damay dem ci ay jotaay di fekkante ak moom ma lim si ñaar wala ñett ñuy dem di defar li nga xam ne ne tey ji moom mooy hôpital bi ñu gis ko mu taxaw def ci loolu ak loolu euh, bloc scientifique bi la même chose pour ne citer que ces deux mais ñetteel bi mooy ban mooy barki dem booy jaay moo am ay acteurs culturels yu am une idée je renommé Paco benn booy mom neena dafa bëgg accompagner 40 euh, ndaw former len ci marketing digital wër na fu ne mais mbirum santage dafa bari Kër Massar ngeen baal ma mais bi mu ñëwee def na ma ah projet bi de amna ko moko nee neena mën na ma jappalé lepp bu mu jeex xaaru ci man dara Paco benn boy ki moko accompagner tay ji bu mu accompagner 40 ndaw fi ci Sénégal service mo aw lu bind ko jox ko mais xam mel bu ñu si jotay wax ko. c'est pour dire que soxorul iñaanul ñi ngi remercier de passage staff bi nekk ci parce que amna na mu doon demee si ñii euh dañ nan ki acteur culturel la né parce que entre guillemets on les traite de parents pauvres comme nous ma koy mais organisation bu baax su amé rek lu ngeen bëgg da ngeen ko mëna am lolu tax vraiment je suis fier je suis content pour moom pour wax ko né ko euh, nga xaasal ñi nga xamné ni tay bi ñom ñoy les acteurs culturels initiative bu juddu la ñu gëm seen bopp mënon nañu dem di talal loxo mais ren dañ na talent bu nek ci ñom lañu génné génné nañ ko té gëm nañ ni yeen aussi gëm gën ndaw ni donc li ngay jappalé nit aussi ñu jappalé man mënu ma nak luddul ñaan té ki ko sékkal aussi man gëm na ni su waxé xana mu ñaka wax mais su waxé dina ko def li ngeen wax ci pôle bi mi dem yobante bi mom doo yobante dang koy wax léegi man gëm na ni boko waxé da koy def parce que def nako fenen fudul keur massa parce que tek na ci suma bëtt donc loolu daal laa amul bu dalalaale ko loolu. Ah, ah. di nga wax kontaan nañu bu baax a baax a baax par rapport ak ñëw bi fii jërëjëf. merci beaucoup donc monsieur Cissé. jërëjëf yow yow maanaam débat bi débat bi yow daanaka yow yaa koy doxal. waaw tey tey tey on doit parler comme thème développement politique de développement et développement culturel tey jii nii war nga ñëw xam-xam war na fi génn. waaw xam-xam war na fi génn donc ñu ngi xaar à ce que mu doon échange boo xam ni même bu fekkee tiraillement day am sax. nay am xam-xam buy génn pour ñiy déglu mën cee jëriñu. waaw sànq maa ngi sonal sama frère bi mais xam nga ñun moom audimat lañ def en journalisme dañ lay xërtal xëy na Pape Moussa Camara président moom Camara la sant ñu sant Cissé na xaw a yërëm tuuti quoi <laughs> ndax xam naa ni koor gi metti la moo frère Aboubacar maa ngi lay ziar bu baax di ziar euh, staff bi président Dame tey ci wàllu développement rek euh, ak politique. tey mun nañ jël benn exemple rek tey daam Thiam comme ni ko président waxee mun na doy doy exemple parce que yàgg na ko di taxawee euh, ci ndaw Kër Massar yi boobu benn Kër Massar rek moo amoon amul woon Kër Massar nord amul woon Kër Massar sud parce que nit tamit pour nga mën a développer ci benn secteur dafay laaj tamit nga am fa expérience damay faral di wax ni l'expérience est une base mais la compétence est une finalité euh, artiste bi pour mu mën a ci secteur am tey fako benn booy foog mu am lu mu am ci fi nga xamante ni foofu la jëm moom la ñu tuddee ku amul crédit doo woote moo tax ma doon insister sànq ñu fexe ba association bi ñu utal ko këyit boo xamante ni dañu ko jëmmal ndax dafa am yoo xamante ni bu nekkee ci yow rek da ngay ñeme loolu tamit mooy wanewaat bi président Pape Moussa Camara li ma ko laaj léegi mooy pour nga gën a mën a développer ci acteur bi dafa am ay direction yoo xamante ni état bi da cee nekk teg ko fi euh, ministère mi ngi fi aussi tamit am na ay centre yoo xamante ni ngi fi loolu tamit day tax pour gën a yombal développement bi nga xamante acteurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci culture dinañ ci mën a nekk ñoo xamante ni dinañ ci développé bu baax a baax loolu nag bu jàllee acteur bi ci boppam moom dafa war a fexe di créer li nga xamante ni mooy ay événement moom laa wax sànq mooy système boo gis mu taxaw rek organisation boobu dafa war a wane boppam mu xam fi mu jëm moo tax sànq maa ngi doon insister mooy mbir mi mu def mu bañ a nekk mbir moo xamante ni suñ koy tudd du ñu ne du ñu xam nuñ koy jàppee benn Kër Massar Nord kese la association bi yam wala dañ ko def benn association départementale ndax nit ki tamit boo xamee objectif am dafay yomb mu mën a évaluer li nga xamante ni moom mooy boppam tey président Dame wax na ko léegi yéen a seen première édition doo leen ko def ren sànni ko nii mais am na ay évaluation bu ñëwee lan mooy faay yi ak lan mooy foor yi

loolu moom mooy nekk li nga xamante ni moom mooy njëkk mooy nga fexe ba légal ba bokk suñ la laajee sa récépissé nga génnee ko beneen bi nga xamante ni topp na ci mooy direction yi leen war a jàppale yépp te nguur gi teg ko fi ñu ngeen fexe ba am fa li nga xamante ni mooy accès daam insister na si sànq mooy information bi ngeen xam fi nga xamante ni moom ngeen koy jëlee ngeen mën a am accès mën koo jëli foofu euh, loolu tamit bu bu jàllee mooy bu dee nguur gi tey ñu ne état bi sax dafa sori mais euh, kii ki nga xamante ni moom mooy mairie bi mairie bi moom wax naa li gën a gaaw pour mu gën a accompagner benn association mooy dafay tënku ci benn récépissé parce que comme moom dafay justifier li muy def foog tamit association boobu au lieu que muy jàppale benn association ak ñaari association dafa am budget bu mu teg boo xamante ni pour association yëpp la du ko jagleel benn association léegi lu gën a yomb nga fexe ba loolu nga mën see bénéficier indiw sa récépissé léegi nag bu loolu jàllee ñu mel ni ñoom président Pape Moussa Camara xam ni ñoom ci li ñuy taxaw mooy ndaw bi nga xamante ni bëgg na jéem pour def dara ñu fexe ba accompagner ko léegi deuxième bi nga xamante ni topp na ci mooy bu ñu fexee commune bi euh, ba ngeen légal ñoom dinañ mën gaaw ci seen développement bi nga xamante ni moom moo jëm ci wàll culture mooy organiser leen ay festival festival yoo xamante ni di ngeen ci gis seen bopp léegi festival boobu nag moo mu di dimbali ci développement ngeen mën a yokk mooy ci entreprise bi nga xamante ni am na fa seex wax na ko léegi lii tey déjà boo leen amee accompagnement tuuti rek ci peinture yi nga xamante ni moom moo ciy def ak aussi bant bi nga xamante ni moom moo ci def loolu day doon benn entreprise boo xamante ni def ngeen ko am benn prix boo xamante ni di ngeen ko proposé population bi nekk Kër Massar Nord yenn accès yi mën ngeen dem sax ba ci école yi école yi dañ doon def woo benn mason nee ba ko ah ñun de am nañ euh, benn inspiration boo xamante ni suñu xel la jugee bu ñu ñëwoon ci seen cadre école bi mën nañ ci def lii boolewaale ci ay fleur ak yeneen ak yeneen mën ngeen sax di ko wékk ci biir école bi mu nekk benn décoration boo xamante ni dañ koy def di ko jéggaani fekk dafa jóge fii au niveau local te yéen ñi yéen yéen a ko indi kon loolu ah, pour ngeen mën a développer bokk na ci tamit ngeen ut benn entreprise boo xamante ni li ngeen di liggéey da ngeen ciy gis seen bopp tamit commune bi mën a nekk loo xamante ni dañ da ciy da ciy gis boppam. loolu la ñuy wax ci politique de développement euh, ci li nga xamante ni mooy acteur culturel bi mu mën cee mën a jariñu rawatina li ma wax sànq muy festival parce que nit structure boo gis pour ñu mën koo xàmmee pour mu mën a dem ci kawam. mooy foog muy taxawal ay événement pour mën a wane boppam pour mën a publier li nga xamante ni moom mooy markam li mën koo xam ne kii mooy kii lii la fi def événement yooyu nag moo lay dimbali li nga xamante ni mooy ñëwaat nga mën koo dugal sa gafaka ba ëllëg yow développement boobu dafay nekk li nga xamante ni dafay yomb ci yow festival boobu dafay dem ba commencé moo xam ci ci at bi di ngeen def ñetti festival mais ñetti festival yooyu lan lañ ciy gañe entreprise boobu li muy génnee am na ñoo xamante ni son de lumière dafay duggaat ci biir association bi ak li nga xamante ni mooy carte yi ngeen di jaay muy bee yi loolu di ci génna dafay duggaat ci li nga xamante ni moom mooy biir association bi kon yooyu boo ko boolee mooy développement bi nga xamante ni tey euh, culture politique bi mën na nekk li nga xamante ni dañ koy indi mooy foog ngay taxawal ay événement bi invité ñi nga xamante ni ay boo volonté lañ ñu mënti ñëw mën na nekk li nga xamante ni dañ lay accompagner fi mooy Euh, fexé ba euh, artiste bi tamit ñukay accompagner muy génn fudul dul Kër Massar parce que dangay gis ni artiste limu mëna limu mëna jaay wala culture limu mëna indi euh indi bi sax mën na ci jarignu parce que ben artiste parce que artiste mom lén rek la am muy muy exprimer ñu utal ko ben espace bo xamanteni bu démé dina wax parce que artiste message ben message lay lancer. message bi mooy xoolal li ngeen bind na la ay yitte ay dëggu ay gëm sa bopp gis nga parce que euh, Pape Moussa wax na ko sànq mooy euh, ñu ngi ci diine ak jamono mais dañ ko li ngeen fi wax lépp mooy yéen artistes yi koor gi da da ngeen ko daan bàyyi oustaz ñuy def seen conférence yéen ngeen toog ba jeex yéen créé ngeen benn activité boo xamante ni bokk ngeen ci te boo xoolee àdduna bi sooy sooy def gëstu muy islam fas à la mondialisation bi ñu xoolee lépp

ay formation ñu accompagner ko parce que tey mbir mi toll na foo xamante ni artiste yi dafa laaj ay moyens yoo xamante ni daf koy am parce que ñu ngi ci digital foofu la ñu toll kon wax nga ko léegi nekkatul ci ay CD kon artiste bi day laaj tey ñu waajal ko bu baax a baax a baax kon boo xoolee sànq li mu wax tey si wàllu diine mondialisation bi mu demee ba xool lépp bi mu xoolee ni tey ci wàllu culture parce que nit boo ko bëggee yàq foog nga yàq aadam ak cosaanam culture moom moo ko téye kon

mooy ku jox boppam cër léegi boo fexee ba am étude am déontologie loolu ci artiste dañ ko gën a soxla mooy fexe ba jom ba def lu lu ñaaw daam boo xam ne dina ci développé sànq mooy artiste tuddul artiste mais artiste tudd mooy fexe tiis bi am na ñu indi la yow nga fexe ba ku doon jooy mu daal di noppi ci dalal bi nga xamante ni moom la kon mënuñu jël temps bi yëpp wax parce que dañuy wax ni damay dégg damay dégg arab ñu naan alxayaatu saa fajaalahu temps muy dund heure la na nekk looy tàq ngay looy topp mu ñu ne kii perd son temps perd sa vie képp koo xamante ni ñàkk nga sa heure rek mooy ñàkk nga sa dund su fexe ba ci biir structure bi taxaw muy association bi ñuy waxee Kër Massar Nord ñu gën ci boole formation yi mooy lu ma doon wax sànq l' expérience est une mais la compétence et finalité pour gën a xam artiste bi ni ñuy taxawee ak moom mooy kan su amee expérience boobu ñu defal ko formation danga mën a jaay li nga xamante ni mooy mbir mi bu pressé fenn exprimer fenn loolu tamit dinañ ne artiste bi fan la jóge ñu ne Kër Massar loolu dina dugal ci commune bi dara dina dugal ci département bi dara aussi tamit dina indiwaat yeneen relation kon kii ni mu jógee Paco benn booy jógee Kër Massar Sud day fekk ni benn artiste exprimer euh, na fële keneen ñëw fële keneen ñëw fee bu boobaa dañuy xam département bi association bi nga xam ci li nga wax rek ci lay appuyé wu rek pour ñu ñu jàll aussi ci ci beneen question boo xam ni dafay nekk question bu essentielle ñu bëgg ko laaj euh, président Moussa Camara daam parce que tey moom acteur de développement la avant tout parce que bu ñu bu ñu dégloo li nga wax fii ci moom ñu bari tey peut-être ñu koy soog a découvrir yoo xam ne mi ngi koy doxal mi ngi appuyer jeunes yi ci formation tey bu doon acteur de développement quel est le rapport entre le développement et la culture Tay ko nan nga bon li ma la mën tontu euh, les deux choses qui doivent aller ensemble donc bien dem donc quand on parle du développement je pense que c'est la cité d'abord donc on peut pas développer quelque chose qui n'est pas de la cité donc tout développement doit participer à l'initiative des personnes et des cadres nga xamante ne ñoom ñoo nekk au niveau de la cité parce que tey quand on parle de politique on dit que c'est l'art de développer la cité donc loolu day ñëwaat encore une fois ci initiative yi nga xamante ne mettre ngeen ko en place pour wax nañ ne le développement c'est moo poumon c'est le poumon de notre entreprise ndax boo demoon tey société nga toog lan lañ ngay wax dañ lay naan lan mooy doon tey sa objectif politique de développement donc loolu ngay njëkk mettre en place donc ci faut loolu mooy tax may invité par exemple les acteurs politiques mun nañu tey par exemple prévoir de faire la culture sans pour autant bañ am ay objectifs parce que il faut ngeen fixer seen bopp ay objectifs d' abord mooy lan lañ bëgg a def fan lañ bëgg a yegg dans combien de temps lan lañ bëgg a doon donc il suffit que tey par exemple tey nga am tey projet de société boobu rek tegal ko sa bopp day nekk sa feuille de route feuille de route boo xam te yow moom ngay suivre donc du coup loolu moom moo lay mën a permettre tey demee ñu mën la dégg fenn la parce que lan da ngay xam ne tey objectif bi yow yaa ko fixé woon sa bopp donc loolu moom mooy andi tey résultat donc encore une fois bu ñu ñëwaatee encore au milieu euh, des des activités de développement lan la ñu mën a gis xam nga pour man dama gëm ne tey par exemple donc personne war nga mën a am benn euh, conscience ni que si bu développé yaa ko développé sa bopp kenn mënul toog ci benn secteur da toog da ne non man tekki moom la dara tey man kat force bi bu toogoon tey par exemple ne du ma man ko force bi. alal bi du du du du du du dërëm. dañu am problème boo xam te ne ndax loolu mënul ko def sa boppam donc kenn ku nekk am nga importance euh, importance boobu noonu tey maanaam dañ koy jël ci secteur yëpp wala yëpp boo ko jëlee nga teg ko kon da ngay xam ne tey kon donc nit waru mën a dund dund boo xam ne da ngay naan man aw ma valeur wala aw ma importance bi nga xam te ne laa def donc j'en reviens encore à la culture donc yéen acteurs culturels man li ma leen di lancer moom mooy tey ngeen gën a mën a taxaw am taxawaay boo xam ne day indi kër seen bopp d'autant plus que tey par exemple mon frère laa da ngeen war a teg seen ay projet de société da ngeen war a mën a par exemple tey ay euh, mécanisme yi nga xamante ne tey moom moo mën a tax ñu leen di dégg fu ne c'est parce que l'affaire n'est pas seulement Kër Massar c'est pas seulement la la commune de Kër Massar non mais le Sénégal donc encore une fois hors le tey mën nañ ne tey au international war ngeen a œuvrer parce que tey di nga nekk benn activité ko di ko di ko gérer doo xam tey ampleur bi nga xamante ne moom ngay euh, mënee pour nga mën a yegg tey par exemple ci nekk kàddu alors que tey au niveau international am na kenn koo xam te moom lay suivre li ngay def intéressé mais c'est à travers la culture donc cette culture là man bëgguma tey par exemple tey ñi koy def ñu koy banaliser mais dañ ko war a def de façon et puis bu amaat beneen fait boo xamante ne ñi bañ ko def par temps mais dafa war a nekk lu nit ci ndax man pour man nit warul mën a tey par exemple dugg si benn affaire a parce que la dafa ne aw ma lu may def dem ma jàpp ko naa def passe temps ba ma gis leen lu war non non loolu te mos a am réussite donc tey acteur culturel yi war nañu mën a tey lii ñuy def war na leen mun a permettre ñu développer seen société mais war nañu bokk tey tey ci acteur de développement yi mais war nañu mën a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy promouvoir tey par exemple tey euh, le développement de la localité donc à travers la culture même li euh, ñuy soxla tey par exemple ci cadre de vie mais les acteurs culturels mën nañ porter ce combat là mën na nekk li ñuy soxla tey ci économie mais les acteurs culturels mën nañ porter ce combat là c'est parce que lépp lu ñu def économie moo ngi ci biir ndax d'autant plus que tey par exemple échange bu ñu taxawalee fii tey par exemple concert wala ñu taxaw ci benn kii mais pas mal de personnes ñoo ci bénéficié wu donc tey ñoom ñoo ngi bokk ñoo ngi contribuer ci bi mais bi ñu tegee tey par exemple tey euh, bu ñu bëggee par exemple cadre de vie bi ñu changé ko ñu ne dañoo bëgg a tey par exemple def ay euh, euh, nu mu dañoo bëgg a organiser tey par exemple nan la ñu mën a yokk tey par exemple cadre de vie bi war nañu mën a dindi bourse yi war nañu mën a dindi kii mais loolu acteur de culturel yi war nañ ko mën a participer te parce que tey seen voix am na loo xam te ne na ko porter au sein de la société donc encore une fois vraiment les acteurs ñoom seen seen seen ay lien de développement dafa dafa bëri ba nga xamante ne tey pousse boo jël acteurs culturels yi mën nañ porter ce combat donc man dama dégg tey par exemple porter woo leen lu ndaw initié woon leen lu ndaw mais duggoo leen ci yëfu caw ma c'est parce que tamit euh, culture dafa bokk ci lii nga xamante ne tey par doomu aadama mën na ko soppi si dundam mais quand mën na defal mais à travers la culture moom la ñuy defee tey par exemple l'éducation parce que boo boolee tey par dem par exemple dans les fii nu mu salle de sport boo fa demee tey bu ñu bëggee waxtaan ak nit ñi wala ñu bëgg sax ñu gérer seen activité tey def ko de façon tey par exemple euh, sensibiliser mais da ngay gis tey c'est à travers la culture la ñuy exploiter pour mën a communiquer ak nit ñi da ngay gis dañuy teg ay chansons sax même en même temps mën di ko di ko exercer ak les activités sportives donc encore revenir par donc la culture est un levier de développement. C'est ce que vous voulez dire parce que vous nous parlez aussi même du Covid On boo le message passé à travers des sons à travers des vidéos et c'est des acteurs culturels qui le faisaient. mais même le président de la République. vous bëggee jàllale message on dirait que lan la ñuy les acteurs culturels ñoom ñooy ñëw jàllale le message donc à travers la communication ça devient des acteurs culturels et à même, c'est aussi deux parties de responsabilité donc il faut sans culture c'est le levier du développement donc il faut le reconnaître donc ñooñu war nañ leen mën a jox leur place dans la société mais war nañ leen mën a accompagner aussi de façon tey par exemple à nekk avant mooy jox kàddu gi euh, Dame Thiam après public bi presque ma dernière question mooy tey on parle de politique culturelle au Sénégal on parle de de de politique culturelle communale au niveau de Kër Massar Nord tey bu fekkee yow da ngay nekk ci biti di xool. tey ban appréciation am peut-être culturelle au niveau Sénégal mais au niveau communal aussi est-ce que ban jugement nga quoi. jugement c'est favorable par rapport à la population par exemple tey boo leen vue da ngay mais aussi ci département yi nga xamante ne au Sénégal bokk na ci développe si département yi nga xamante ne au Sénégal mën naa ne moom lañu gën a euh, di tudd mais bokk na ci développement yi nga xamante bon on peut pas dire de développement parce que développement amagu fi o on on peut beaucoup de choses yoo xam ne tey amaguñu ko tey à Kër Massar mais loolu yëpp tey à travers la culture war nañu mën a porter ce combat là tey. infrastructure yi nga xamante ne que Matam mu koy doy war nañ ko mën a porter à travers la culture donc loolu yëpp nag bu ñu ko jëlee kër Matar je pense que acteurs culturels yi bu ñu taxawee taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu war bon war a gagner beaucoup ne. mais est-ce que yow comme ni nga leen Fawara baaloo discorde avec les artistes qui disent ni politique culturelle bu Kër Massar ñoom sentir ko parce que avant nga ñëw je pense que loolu lañ doon ñoom loolu lañ doon dénoncer que ni des na. des na lu bëri loo xam ne tey ñu ne euh, politique culturelle bi ñuy xaar ci ci au niveau communal gisaguñ ko est-ce que tamit yow ak ñoom bi des dem en décalage par rapport ak propos yi wax non c'est normal xam nga bu que taxawee politique culturelle bi ñuy xaar département bi gisaguñ ko c'est tout à fait normal parce que on vient d'être élu en département et de deux encore plus, tellement ça, on voit des choses par exemple passer mais gars yi daaw ñoo jël seen responsabilité mais tey cette jeunesse a pris sa responsabilité commencé nañ tey par exemple di di

képp koo xamante ne tey am nga ci part de responsabilité si jël sa responsabilité ko war a jëlee bu nekkee l'acteur culturel doit parler n'a qu'à parler l'acteur politique doit parler il doit parler donc toute personne qui doit parler n'a qu'à parler donc loolu la ñuy xaar tey par exemple tey si si dans kii au sein de l' activité culturelle pour que kenn ku nekk mën a jël sa responsabilité ñu xam ne tamit gëm sa bopp moom mooy mën a tax demee nga mën a am réussite ci li nga xam ne mooy parce que wax naa ko fi tout à l'heure tant que fixé wuñu suñu bopp ay objectif ne lii la ñu bëgg te fii la ñu bëgg a yegg te lii ñu ñoo ko kaat donc du coup ñun bu ñu paree wuñu pour dem bu ñu amee tey objectif te boobu noonu war nañ mën a avancer dans la vie donc loolu encore une fois je lance un appel aux acteurs culturels ñu xam ne aussi tamit l' affaire ce n' est pas par exemple une personne qui euh, nu mu euh, Thiès ou bien de war wala keneen koo xam ne moom mooy ñëw porter par exemple place mais c'est la population mosarawaat ñun ñoo war a jël le destin en main xam ne tey par exemple lii ñoom ñoo ko bokk fii ñu toll nii Pikine tolloon na fa Guédiawaye tolloon na fa feneen na feneen tolloon na fa mais ñi fa nekk ñoo jël seen responsabilité moo tax tey ñu leen di woo fu nekk di leen invité ñuy mën a di taxaw di di intervenir mais tey Kër Massar aussi tamit ñi ñu taxawee taxawaay bi ñu war a taxawee je pense que dinañ toogaat fii par exemple du doon li dañuy wax mais yeneen initiative wala yeneen perspective ñooy nekk suñu

da ko may bépp citoyen te da ko war a xam parce que comme dañuy toog di waxtaan dañu war di échanger ndax bu ñu paree mu mën a jur jëriñ dinaa ci politique culturelle bi mais dafa am benn baat bu tubaab bi wax la participation la participation est érigée si constitution Sénégal dañ ko ci def ba pare ñu dëxëñaat ko ci acte 3 de la décentralisation su suñu euh, comment dire code des collectivités territoriales dinaa si ñëwaat Sénégal xëyul nekk Sénégal avant 1960 amna ñu fi di doxal ci suñuy maam boobu ñun amuñu sañ-sañ mais à certain moment ñu 1960 am suñu indépendance ci lu wax mais entre 1960 et 1972 Sénégal ñu ne dañu mais mu métti métti koo posé acte bu acte de la décentralisation mooy wane ne ñoo ngi jëm ci concentration de ñu ngi bëgg a jox askan yi li ñu moom ñu waxee seen kàddu dafa am fu ma jëm nag moo tax mu commencé foofu su ma yegsee di ngeen xam le pourquoi l'acte culturel wala xam boppam a bu mooy dëkk ñu ñëw ba 1996 mooy acte 2 ci la ñu am ay arrondissement ainsi de suite sous préfecture yi régionalisation mais bi ñu jógee foofu nag également ñu ñëw ba 2013 nag ci la ñu décrété acte 3 La participation ça devient une obligation mooy mooy nit ki am na sañ-sañu nekk ci localité am ne dafa bëgg a ci localité boo xam droit la dañ ko dugg ci doy suñu constitution ba pare dugal ko si suñu li nga xam ne mooy code des collectivités territoriales loolu boo gisee ma wax ko lan laa ci bëgg a wax mooy ak man ngeen jouer benn rôle boo xam ne ni tey jii politique culturelle Kër Massar parce que gis nañu Kër Massaaru démb ak tey problème yi ngi continuer di dem mais est-ce que réellement da ngeen di toog ne ci culture bi kese ngeen di des lii nga xam ne moo nekk insécurité bi est-ce que acteurs culturels n'ont pas leur mot à dire Seulement des jeunes est-ce que insécurité bi amula ci wàll est-ce que li nga xam ne ne tey ji moom mooy occupation anarchique bi vous êtes des de voix ba nga laa balaa nga naan naam fay nekk mooy organisation boo gis day am une administration très sérieuse ci ginnaaw mooy yéen ci ginnaaw il faut mu am ñenn ñoo xam ne duñ leen gis mais ñooy tëgg seen administration mooy tëgg seen i projet pourquoi pas un acteur culturel un métier c'est possible c'est un projet mën na nekk bu ñu waxee acteur culturel à Kër Massar tailleur baa ngi fi maçon baa ngi fi lépp a ngi fi mais consommer local dañ koy wax mais seen politiques yi nga xam ne ñu ngi campagne Kër Massar fii naka la ñu war a mën a def ba nga xam ne ni tey jii blouse yi nga xam ne ñu ko daan wax bu ñu xaar ci mais seen biir da ngeen gagné marché donte nag art kii artisan yi ñu ngi koy def mais foofu lañ leen di xaaree politique culturelle parce que bu ñu développement dafa am acteur bi ah hein, kii nga xam ne mooy cible bi ak impact yi man li ma gëm mooy vous êtes des porteurs de voix nous sommes sax lay wax parce que dama jàpp ni ñëpp ay acteurs culturels la dafa am ñoo xam ne ils sont actifs ak ñoo passifs ndax ku ma ko ni ma ko waxee du corbeau au tombeau ndax nit ki buy gane si àdduna nañ koy teel teewu

Nous koo def te les acteurs culturels mais les acteurs culturels dignes de son nom ku xam moom parce que bu xamee moom mooy kan duñ ko fekk ci bërëb yoo xam ne tey dañ naan ko accam buñ ko fekkee fu muy sensibiliser buñ ko fekkee foo dem di la vraie information buñ ko fekkee foo xam du toj du mais buñ ko fekkee foo xam ne tey lu lay def ko boobaa dañ ko ah, développement bi kat ci ndax boo gisee ñun ñu gëm culture bi dañoo tudd ak ñoom man dama ko gëm dama gëm ni xaw ma fan mais lii ma gis Kër Massar bu ngeen organisé wu def ko euh, Kër Massar sud yëmbal nord yëmbal sud jaxaay ngeen def une fédération une fédération ku si nekk mën nga am sa turu bopp ah c'est pour répondre un peu tout à la question bi gardez votre nom ku si nekk mën nga am sa turu bopp mais créer li nga xam ne moo une fédération def leen li nga xam ne moo un projet commun culturel ne ñun à partir de maintenant fii yëpp échoué.

donc loolu moy li nga xamné ni tey mom moy fini fi acteur toll ils sont au début et à la fin C'est pour un peu résumer politique de développement culturel mooy idée bi ngay am traduire ko en projet am une administration sérieuse doxal ko bind sa rapport teg ko wax nit ñi ni fii laa jóge fii laa yam man pour le moment man loolu laa ci bëggoon a indi. macha allah macha allah intervention am na solo trop. am na benn question à la Euh, non man euh, juste damay damay damay damay damay rejoindre ñoom lu ñu wax rek parce que benn benn affaire dafa am gis nga artistes yi foog ñu def li ñu naan prise de conscience collective c'est-à-dire waxuma sax artiste mais jeune bu nekk tey ak fi réew mi toll da nga war a fexe ba nga xool yow waxuma non pas nan la ma lan la ma réew mi war a defal mais man lan laa war a def pour réew parce que sax am na ko fi wax ba wax fi waxu ak activiste mais c'est-à-dire acti activiste un activiste man je peux dire que nous ma une responsabilité engagée, sociale ak civique engagée. c'est-à-dire nit ku nekk cest dire dès l'instant que nous ne la activisme rek c'est parce que yow yaa ngi def activité yaa ngi def ak activité activité benn affaire bi nga xamante ni yaa ngi koy def te comme on dit gis nga artiste bu nekk fii suñun man je peux dire que une entreprise parce que mine de rien am na benn nit bi nga xamante ni moom mooy sa ginnaaw même si bu fekkee que c'est ménage la wala ki lay liggéeyal sa ingénieur de son wala je ne sais pas am na daal au minimum benn une cinq wala voire dix personnes yu topp sa ginnaaw léegi ñun man dama di que ne dafa am benn affaire bu nga xamante ne ñun des fois dañ si dul bàyyi xel grand bi wax na sànq boo waxumaa sa ambulant yi mais foofu sori na sax ASC yi ASC lan la association ak culturelle mais dañu culture bi dañ ko sànni fële jël football bi rek def ko au devant mais ñun ak tey association bu mel ni ak man mais war na mën a dem seeti ji não yi nekk fii ci zone bi même bu fekkee dañuy def ay journée bu nga xamante ne ay journée de plantation la wala de reboisement mais ñu impliqué leen ci parce que benn jour dama toog mooy jour bi ñu defaree fii ba pare ci lendemain ba ma gis ay élèves yu fi ñëw fii ci centre bi fii di fi def slam parce que slam peut-être que ñu bëri naan nañu ko mooy comme li ñuy wax rek moo moo naa laa nekk la démocratiser moom moo démocratiser la parole ba nga xamante ni ñëpp sañ di wax en public mais loolu la tey artiste bi def parce que artiste bi day jouer benn rôle bu nga xamante ne dafa nekk rele entre le grand public ak ñi nekk ci kaw mooy ñu mel ni tey ñoom président Moussa Camara peut-être am na ñu nga xamante ni man artiste euh, artiste la xam naa leen mais ñoom xamuñu leen te ñooñu ñu ngi nekk ci art bi di ci yëngu yàgg na mais peut li ñuy def. amul benn impact ba egg ci ñoom mais léegi ñoom artiste bi relais bu mu war a jouer mooy rôle bi journaliste bi war a jouer mooy essayer de d'avoir am le savoir utiliser son savoir-faire pour faire savoir donc éthique bi kii grand bi doon wax sànq ak déontologie artiste bi daf ko war a am parce que gis nga artiste moom moo nekk reflet de la société artiste bu nekk société ni mu mel moom moom ni mu mel sax la wax noonu la société am di mel mais moom ni mu mel dañ koy xool ci société parce que ci moom la ñuy identifié pour xam ban société la jógee exemple bu ma nee la man rek sénégalais dañu am habitude ne la tuxkatu ganja, la mais alors que du tuxkatu gànjaa moo tax des fois yenn artistes yi naan la bul déglu li may ni ma bul xool ci ni ma mel de déglu li ma lay wax c'est gis nga man je me que ne la personne la personne ça importe peu mais xam nga lan moo am solo mooy un artiste mooy créativité bi muy def parce que un artiste mooy nit ki nga xamante ni day créer ay merveilles mais malheureusement nag ñun dañu nekk nag ci benn benn zone bu nga xamante ni peut-être euh, je peux dire dëkk bu bees la am na côté organisation organisation nen lu bëri yi nga xam dafa des parce que tey jii nii genre débat bii ñu def nii man dama di que ne bon c'est ma première nag mais waroon na mën a impliquer comme li ma fi wax euh, kii euh, association mouvement sportif yi ñooñu ñëpp waroon nañ mën a fekkee lii parce que am na ay jeunes yoo xam ne ñu bëri tey seen kër la ñuy dox xam nga lan moo lan moo kan la ñuy waxtaanal seen téléphone. wala bu ñu toogee dañuy toog entre copains ñun ñëpp jaar nañ ci loolu ki fo ëpp xel wala ki fa ëpp jàng intellectuellement ci moom la ñuy identifié wu. léegi kooku noonu nag fii xelam yam rek fa lay yamale ñeneen ñi mais gis nga waxtaan dafay baax ñun tey ñu toog ku mel ni Moussa Thiam président Moussa Camara ak euh, journaliste bi Cissé ñun ñu toog ñuy weccoo parce que xam nga lay nekk. du nekk generation cest conflit de génération mais xam lay essence parce que nous rôle bi ñu artistiquement mooy la war blanche mais dafa am aiguille xam bi lay réguler affaire mais la question rek poser le président Moussa Kamara, c'est que ne moom lan la pour defal parce que man

boo ko gisee wax ko bon ñun nag égo yi dal nañu ko te yow témoin la fekk nga ko nga féetali ko léegi ñun bëgg nañ nag liñ naan boo bëggee parfum boo amul njëgu parfum da ngay dend ak ku am parfum mu xeeñal la waaw léegi ñun nag borom parfum bi ñëw na fii dama lay suggérer li ma waxoon pause sànq mooy que ne xam nga le vin est tiré quoi il faut le boire ñun lan nga fi mën a. promettre loo xamante ne artiste tey bu ñu tëddee bu ñu tëdd seen xel dina dal quoi. public bi aussi am nañu ay questions yu bëgg a posé après euh, El Hadj après yow yaay jël benn question ginnaaw euh, président Tonto ba pare après ñu jël public bi incha allah ngeen préparé seen i questions rek ñu bëgg a posé question président kañam ñu par boobu kon liggéey bi il faut gars yi jël ko ci jël ko ci perte na ko amee mu ngi gudd de ma ne c'est bien baax na parce que xam nga genre jotaay jotaay yu mel dafa am lu bëri lu muy éveillé ci conscience bi quoi donc du coup man ma ne am naa projet par rapport ak ay acteurs culturels moo ko mën a tënk tey par exemple benn soxla ma faj ko mais damay naan tey par exemple dans l'avenir parce que j'aimerais bien par exemple être là et que vous soyez là aussi et que ñu mën a ànd liggéey en partenariat parce que tamit euh, comme li ñuy wax they're not a development architect, and we don't have architect. So people people put their answer in their background, still make a problem. And then actually they begin instrument to put in and they keep activate, and they keep around their background, their project to level it. Et que ça, il y a un projet, activité, bonne manière, Nous avons encore, par exemple ni ça peut de quelque chose pour l'avenir de notre société nous dañuy une possibilité aussi pour contribuer parce que là, là, nous ñoo nommé sur bopp nous nous des acteurs de développement mais nous avons porté tey ce combat et que combat vous pouvez le porter, ce n'est pas pour nous mais c'est pour faire, par exemple refaire notre société refaire encore par exemple l'entreprise humain bi nga xamante ne moom moo nekk au sein de nekk nos frères nos petits frères nos nos nièces nos neveux yi nga xamante ne tey ñooy nekk au sein de la société te xam ne ñoo ngi jël beneen poids bi nga xamante ne tey c'est pas la mienne donc vraiment loolu bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee tey changement a am taxawaay bi nga xamante ne tey dañuy koy wan tout à l'heure na ko ndax nit lu mel ni nga mel mais lu dul li nga mel rek loolu lañ mën a xoolee donc loolu tey bu ñu mën a xoolee tey société bi am nañ tey par exemple taxawaay gan rek la ñu mën a def moom mooy ñi nga xam te ñoom ñoo leen jiite wala ñi nga xam te ñoom ñoo leen jiit wala ñi nga xamante ñoom la ñuy roy ñooñu ñu am taxawaay bi nga xamante ne dañuy nekk des euh, des des personnes exemplaires au niveau de la société pour que ñu mën a avancer si loolu donc question boobu mooy incha allah jàppale ñun ak yéen ay partenaires lañu te dañ koy ñaan yàlla nekk aussi tamit à l'éternel donc la mënoon nekk parce que nous de faire nos empreintes dans la société donc pour pouvoir laisser nos empreintes il faut que dinañ dafay par exemple ñu xool kenn ku nekk lan la mën a servir moroomam ci li ko ci li mu manqué mais aussi tamit tey li nga xam ne moom lay xaar ci moroomam quoi. merci beaucoup je pense que ni euh, am na ñoo xam ne aussi fi ñu ñibbi dafa xaw a sori. peut-être dernière question bi la monsieur Cissé di joxe après ñu jël public bi deux intervenants voire trois après ñu mën a libérer euh, président. waaw question bi may euh, posé Pape Moussa Camara président euh, damay gën a dëgëral ak wax nañu sànq ñu bàyyi ci xel mooy mën nañu nekk ay artistes mais tamit nañu am métier gis naa ni ku mel ni Bingal Jolof cadre même en même temps tamit dafay la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci. li ci gën a am solo mooy bëgg mbir mi mais tamit fexe waajal sa bopp ak métier boo xamante ni di nga ko développé sa bopp loolu al amin wax tamit euh, dafa nekk loo xamante ni lu ñu war a gën a mën a bàyyi xel la euh, xam nga nag ñun moom euh, actualité bi moom foog ñu wax ci parce que comme wax nañ politique de développement te ni ñu defee développement bi nii mooy toog xalaat daam xam na bu baax toog essence Pape Moussa Camara tamit Euh, ni mu ko defee gis nañu mën na génnee lu bëree bëree bëri parce que da ngay teg taaj tànn mën a am ay solution ëllëg Pa Moussa ñu ñun ñuy ñëw ci côté politique ndax ñu ngi doon wax ci euh, politique de développement foog naa tey acteur politique bu bëgg avancé avancer dootoo yëm rek ci politique bi dem mais développement dina ñëw social dina ñëw pour nga mën cee génn parce que askan bi ñoom ñoo tollu foofu te loolu la ñuy xaar dañu sonn ci politique bi fi nekkoon rek homme politique yi ñëw wax utiliser askan bi dem amuloo leen njariñ yow nag dañ la gis coalition yi ku nekk ngi daw di wane fi mu féete yow gisuñu nga féete fenn waxoo candidat bii la ñuy jàppale dafa mel ni yow sa personnalité ñu ko bëgg a téye ci département bi ba ñu féete ci politique ragal la wala da nga amatul base politique ah wax ji boobu de bon question bi sax na de question bi man neex la nag bu la neex la de kon président day tontu baka baka président day tontu président wax ni moo àndal. non xaaroon naa lu bëri nag ci loolu vraiment mu nekk benn question boo xamante ne xam naa ne aussi tamit Kër Massar yi comme ngay xaar ci man ndax pas mal de leaders dañ may woo pas plus tard que mën naa ne ce matin ba léegi ci question bi nga wax ni moom lay tontu donc ku nekk nga xaar ma war a am position war a ma war a xam fan laa war a mën a féete c'est vrai que tey par exemple société moo laaj bu mel noonu te war ñu toog seetaan. mais am na koo xamante ne comme li olof di naan boo xamul fi nga jëm rek da ngay delluwaat fi nga jóge woon donc élection présidentielle je pense que am na moomeel te moomeel gi aussi tamit société bi la dama nekk nit koo xamante ne euh, du ma ne euh, damaa yëg sama bopp du ma ne damaa xamul sama bopp mais dama bëgg a xam sama bopp xam sa bopp nag dafa bokk ci jaamu yàlla donc du coup comme ni ñëpp defee tey politique man séntuwuma sama bopp si image boobu noonu parce que ba may ñëw tey dans la scène politique dama ne woon tey damay ñëw ak des innovations mais quand même développer une politique de valeur ndax tamit bëri na fi ñoo xamante ne lan la ñuy wax politiciens yi weñ lañu suñ tuuti la ñuy takk bu ñu génnee fii neewaat neen ni donc ñu passé ay étapes yoo xamante ne tey génn nañ si élection locale ma demee ak gis gëm sa bopp ñu bëri yaakaar ni gëm sa bopp laa nekk fekk na parce que rek laa demee te parce que moom moo ma courtois ñëwoon seet ma sama bopp am ci man intention ma jël listam porté ko tey loolu moom ma poussé woon à cette tey par exemple ma ànd ak moom ndax il avait d'autres opportunités mais d'autres personnalités yi nga xam ne ñoo doon porté liste bi mais si le choix porte sur ma personne tey loolu bokkoon na ci li nga xamante ne moom moo ma poussé ñu génn si état boobu ñëw législative législative ma ñëw ànd ak parti au pouvoir ñëw jàppale leen donc état boobu mu weesu tey ñu war a dem présidentiel présidentiel kat moo ko moom je pense que c'est pas la population Massaroa kese mais c'est le peuple ñoom ñoo war a désigner maintenant il faut que tey mu war a nekk tey le choix du peuple certes kenn ku nekk war na am position kenn ku nekk war na am taxawaay mais kenn ku nekk war na am féete mais féete boobu noonu lan la war a doon war a nekk tey pour wala dafa war a nekk pour suba donc il faut que nga xool loolu tamit donc man sama choix mooy ku ma a àndal ci présidentiel moom laa war a àndal si les locales yi di ñëw moom laa war a àndal si législative yi di ñëw donc loolu day nekk choix boo xamante ne aussi tamit il faut ma revoir ko porté ko bañ ci def erreur ndax tamit bëgg a ànd ak rek la wala bëgg a toog ak nit kese wala ne nii bon depuis boobu ba léegi pas mal de personnes yi ñu ñëw ku nekk ak ñu mais man je ne vois pas par exemple de profil par rapport à ma personne. président Pape Moussa Camara est ce que yow nekkul da nga manqué courage wu ma courage politique ndax xam nga politique bu koy def ku ne boo ñemee lépp doo ko def donc naa. parce que coalition yi fi nekk ak programme yi fi nekk waxtaan ak ñoom nga ne ki may àndal local loolu da nga manqué courage politique. non non non non au fait boo ni dama manqué courage politique day mel ni tey vision donc man. personnellement fii nga xamante ne tey par exemple moom laa tënk sama image tënk ko sama personnalité man dama jàpp ni benn politicien yoru au contraire man politicien bu bëgg àndal wala parti politique bu ma bëgg àndal xaar ma si yow pour nga defaral ma xaar ma kii mais man dama pare pour contribuer tey par exemple sa développement yow ndax tamit sa image moom mooy sama image sama image moom mooy doon sa image. mais élection stratégique la si sa mouvement coalition bi ngay àndal pour nga mën a natt sa waaw loolu am na mais ñoo ngi ciy ñëw incha allah peut être loolu nga bëgg a xaar mooy nag la wax dëgg yàlla ci kër laay àndal. donc loolu comme ça bi comme ça bi jeex na tey am na delloo kàddu gi. na solo mais nag leeral ko de ba léegi leeral waxu ko lay àndal bi rek kan kan kan kan la ñuy jox kàddu première question euh, bu fekkee micro bu disponible na wala ñuy ñu joxe micro bi taal ko boobu baax السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوجه بكلمة الله تعالى وفي شر ما خلق. لكن أبو نسبة يا الله جل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. آه، نيو بولن نفتي ونب. نسيت يا واي. جكون آه، تام ربا خبا في وقت بني وقت عليه. آه، جكون تام تبدي تلاو سنو كني. مي مسيسيسي. شام ak euh, Camara bi nga xamante ni tey bis bi moom moo ko sponsorisé ndax suñ ko waxee rek ndax dañ koy tàmbali di ko waxtaan daanaka mën naa am yëpp génn ci woon mais ginnaaw ba c'est des acteurs culturels ñu fii te ñu doog a si biir yu mel nii demoon seeti la nga dalal ñu si jàmm dellu si waat yebalaat ay ndaw ñu ñëw fekk si ñu luñ doon liggéey diggaat ñu tamit di nga mën a ñëwaat tey si maye ndogu bi nga ñëw ñu naan la dalal jàmm kontaan nañ ci taxawaay bu baax baax dina jaajëfal ndax yokku waaye alhamdulilah soo gisee ñu jël kàddu man damay def suggestion ndax dafa guddi te daanaka ci koor lañ nekk ñu bëggoon poser question yu bëri nañ mais man damay jëw rek ci dalal gërëm gërëm leen ci teewaay bi ngeen teew ak disponibilité bi nga xamante ni joxe ngeen ko ndax tey su leen defoon ngeen gàntaleen ñëpp waaye ñu def ko ñu ne nañ ko waxtaanee su ko defee ku nekk jëlee ci njëriñ mën ko yóbbaale ci këram mënoon na ñëw rek présenté fii ñu tàccu ñu def ay proposition ay idée ku nekk dem sa yoon mënoon naa yem ci loolu noonu waaye tey fexe nañ ba yaatal ko teewal fi ñi nga xam ne ñii ñëpp bokk ci ak man ay journaliste lañ tënk leen guddi na lool waaye tënk leen ñu bàyyi seen temps ñoom ñu toog di ko waxtaane di leen ñaan rek lii dañ ko gën a yaatal yéen ñi nekk ci département bi ñi nekk ci commune bi nekk ci centre bi jiite ko yombalal ñu ko lool nag ndax Kër Massar Nord maire bi ki fi teg mooy Cissé bañ fi ñëwee ba léegi suñu gis mu defal ñu benn xarmu yàlla wala tëjal ñu benn kanam saa suñu soxlaa moo ngi ci ay suñu disponibilité bu ñu ko gën a yombal tànk na loolu ma wax dafa nekk dëgg waaye président am ngeen sas sas bi mooy que da ngeen a tàmbalee ci level bu dañ koy def te chaque samedi yooyu sax su koor gi dañ koy dolliwaat defaat yeneen mbir tàmbali nañ ñu tàmbalee ko si ay nit ñu mag ay nit ñu responsable wane ne lii ñuy def kat caaxaanuñu ay ndaw la ñu sàmp comme dégg naa sànq gars yi di wax naan artiste bu nekk ak métier man daanaka je peux dire que bu nekk ak man ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ay artiste lañ yoo xam ne dañoo ànd ak seen métier chacun a son métier ñi fi nekk ñëpp laa wax mën naa ko assurer bu nekk yaa ngi métier bi ngay dawal mais li nekk sa xol sa bëgg-bëgg mooy métier artiste bi yaa ngi koy dund léegi nag di ko dundal li ca daam ca wax mooy message yi nga xam ne dañ koy partager ci dëkk bi di yéene ñi ci wàllum lañ naan euh, inondation yi ci wàllum insécurité bi ci wàllum mbëbës bi fi nekk ci wàllum ñàkk fexe loolu yëpp ñun artiste tout le temps dañ ciy wax dañ koy waxtaane ñoom ba ko benn booy ñeneen ak ñeneen ñëpp dañ koy wax saa su ne ñoo koy dund léegi nag li ñu gën a bëgg mooy un rapport ñi nga xam ne dañuy gën a doole doole gën ñoo may fit gën ñoo mën a wane su ko defee wax ji a mën a leer di a fu mu war a mën a ci loolu lañ leen di xaar Moussa Camara si lañ xaar mooy ndaw ñaa ngi nii yow yaay suñu premier leader bu ñu fi invité te invité wuñ la sax parce que politicien nga mais dañ parce que c'est un parce que dégg nañ say kàddu dégg nañ say mbir ko dégg Amady Diagne yàgg na maa wax say mbir mu doon ñu koo la jublu la léegi nag ndaw yaa ngi nii centre baa ngi nii seen yëfa lu ci baax ba nga lay jël sa si bon tamit ñun ñëpp ñu bonandoo ko fekk ñun ñëpp day day baaxee si ñun suy yàqu tamit bu yàqoo si ñun kon bisimilah ma jox ñenn ñi nga xam ne bëgg nañ joxe kàddu wala joxe merci beaucoup tàccu leen ma ko kooku de bi di ak man d'accord kan ngay joxaat kàddu gi surtout les questions aussi ah des suggestions ndax boo ko di ngeen jigéen ñu ko d'accord léegi kàddu la ñuy jox mu tëgg mu joxe ay questions bisimilah monsieur le directeur euh, waaleykum rahmatullah Je suis là par le biais de Dieu le maire. Voilà. C'est la deuxième ou troisième fois mais qui j'ai à activité. Pourquoi J'avais une certaine euh, perception de euh, notion d'acteur culturel. Voilà. Parce que je suis au collège, voire lycée. si je suis ay acteur culturel, je me dis que ah ñi dañuy dem foofu toog ñu way wala ay fecc affaire yooyu perception boobu laa ci voilà. Donc je disais que perception Pourquoi? Je me disais euh, parce que j'avais une méconnaissance donc de ce qu'est un vrai acteur culturel. Et j'espère que les ma samay mm-hmm. invité mm-hmm. vers les écoles. Par exemple en ce moment j'ai des compétences sur le contrôleur aérien, sur les radars, les drones et même les intelligences Mais j'ai laissé pleinement à j'ai fondé une entreprise. Et j'aurais aimé je may nekk ci collège ou lycée ma je ne loolu pas existé l'on par exemple il a fallu que expérience one money. ci dëkk am une institution boo xam te ne avion bu fa daanu crash ñoom ñooy def pour xam nan la def pour pourtant loolu Sénégal mm-hmm. mais il a fallu madame, avec l'expérience, moi, moo tax xam quand on parle d'acteurs culturels culturel de Kermassa, Massar li ma invité comme euh, Paco projet de ma dégg sànq monsieur le président RNL à ce que nga porte ko ngeen formé ay ay sur le marketing digital et autres j'aurais aimé su vous avez possibilité possibilités, aller vers les établissements Ainsi, certains métiers su ma les interaction bi entre les écoles li ma gis la plupart du temps xam nga lan la que ay POSCO am na même activité les mêmes personnes, même personne ñoom ñoo nekk ci kii ñoo dem tamit concert tout mais j'aurais aimé ngeen mën a dem ci institution yooyu prélèvement sur les meilleurs élèves Nous, les acteurs culturels de Keur Massar ñoom ñoo dox dem par exemple une école de la place xool les ñu fa premier et dans les domaines scientifiques voire littéraires d'être une petite je sais pas de ma confrontations, mais ben espèce échange avec les autres écoles à travers soit une compétition ou ndaw wala quelque chose pour entrer après ce sont les acteurs qui yoo xamante nous. Nous, nous, dem euh, des sanctions positives et autres loolu daal il y' a plein d'idées qui sont là depuis bi ma toogee du sànq parce que comme je vous ai dit man perception boobu laa que les affaires de co culturels, affaire voilà gars yi dañoo am temps moi parce que c'était une méconnaissance de ma part. Et à mon âge aussi, je me dis que c'était compréhensible. Mais comme je me le mal ressentir, je me commencé. L'autre mot non, j'espérais j'espère que si nous dit une école, ils ne vont pas vivre la même chose. Et je compte sur vous, avec pour pour gagner de mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lo, ah, parce que les idées sont vraiment pertinentes. Et moi aussi, nous comme vous êtes là, ah, euh, première fois, nous sommes venus nous aussi, apporter, parce que touche. parce que tamit comme li ñuy wax rek association dafa ubbeeku pour képp koo xam ne rek pare nga pour euh, dimbali képp kuy xale wala kuy mag wala képp ku acteur culturel yaakaar naa ni même boo nekk acteur culturel acteur de développement nga te acteur culturel aussi acteur de développement donc war ngeen mën a ànd donc yow aussi ñu ngi ci xaar bu baax a baax incha allah. Euh, boo koy xëcc léegi dañuy joxaat beneen euh, suñu beneen partenaire bu nekk président d' bu ACMAN acteur culturel bu am métier. <laughs> voilà donc léegi su ko defee moom tamit am na ay questions yu ci bëgg a def wala suggestions yu ci bëgg a def ñu bàyyi ko bu ma jëmbatoo macha allah. xam naa nag moom mooy doon bu mujj ah après ñu jox def tour de table ñu tàggatoo parce que guddi na trop. trop ñu ngi duuf nag lii duufandoo ci duuf ci nag bi xajandoowul ci ci cin li mooy olof bi. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di présenté wu maa ngi tudd Moustapha Ngom. sama tour artiste moy Ra officiel du président comité d'organisation association bii ñu que di Agman donc damay commencer ne Agman ça signifie les acteurs culturels de Kër Massar Nord bu ñu des acteurs culturels de Kër Massar Nord situation géographique bi moo tax ñu boole le Nord ci l'ensemble des acteurs culturels. alors le slogan c'est parce que nous, avons fait la ngay def affaire boy ak man donc le donc loolu lu nous lay wax. Nous jeunes Nous xam li Nous Nous objectif Nous haut et Nous ba ñu Kër yàgg fi nekk ay artistes mais am benn mal mooy boo demee ci yeneen département yi wala yeneen localité yi lu ci mel ni Géejawaay da ngay dégg ñu ne la diw nga dem Pikine dégg ñu ne la diw nga dem Médina dégg ñu ne la diw boo ñëwee Kër Masar kan lañ lay wax du ci politique du ci artiste du ci bër du ci joueur

moo waral du dajaloo teg ak man waaye dafa am sax benn collègue boo xam te dafa am lu muy faral di mun a gaynde sax boo ko soxlaa da nga koy fekk Barkaal nous les acteurs culturels boo soxlaa fan la ñuy fekk moo waral ñu jéem a def lépp lu ñu mën pour am nekk moo waral ñu boole suñu doole pour taxawal lii ñu taxawal nii kenn fekkuñu ci métti na ñuy jàpp di ko xeex. bu ko teewal ba mu agsi fii tey donc gàcce ngaalaama gars yi kontaan naa ci yéen trop maa ngi leen di jaajëfal bu baax parce que xol laay waxe te yaakaar naa ne lii may wax mu jóge sama xol ci xol lay dellu ndax olof da koy wax lu jóge ci xol ci xol lay dellu donc pour bañ a guddal bu fi jooy nag bu fi jooy <laughs> <laughs> pour bañ a guddal dafa am loo xam te ne rek en tant que porteur de voix dama ci avant may poser sama question parce que man dama am question

sànni ci benn lu muy jàngal boo paree sànni mu ànd ak yaay ji ne ko yaay damaa saf saw dañ koo gis ça se répète fréquemment xale la ci benn bi foofu mu sumal ko tubéyam na ko sawar dafa am koy jàngal te yooyu noonu dafa am loo xam te da koy def ci ñun te nekk gis papa bu toog ak yaayam am kuy woo papa bi

dañu war a taxaw di ko ci démarche pour mu jóge fi donc foofu laa bëgg a taxaw rek balaa may ñëw si question dama gis ne président Moussa Camara gàcce gàllam man xam ngeen ma du ma tàgg kenn yéen ñëpp xam ngeen mais dafa am yoo xam te dama gis bu du ko def te sëntuwu ci dara mais nag santuñ ci dara buñ koy wax ci cadre àdduna la ñuy wax waaye lépp lu waaye di def rek même bu ci santuwul borom àdduna mu ciy sant fay yàlla donc yal na la yàlla fay di jaay sa dojo ma lay laaj parce que man am na lu ma la mu gis sama xol mën naa ko sax bañ a wax mais ma lay laaj yow ci say projet lan ngay xaar ci ñun ci lan nga bëgg ñu taxawu la lan nga bëgg ñu jàppale la jërëjëf tey votre question merci beaucoup pour le contrat officiel. waaw sama maye tuuti rek. na répondre ah non dañuy tënk jox jox ñu beneen question bi après mu mu jeexam parce que question yi jeexoon na. remerciement. ayca kon bref nag nag na gaaw tuuti waaw. ñu ngi ci 23 heures. salaamaaleykum maa ngi jaaraat ñëpp. voilà instant bi guddi na trop. voilà maa ngi jaar président ak ñi nga àndal. voilà juste pour wax leen ne rek euh, man ak moom bi ñu xamante presque ay un an lay toll mais moom lu mu lépp lu mu mës a wax rek dafay def parce que man dama di kenn yàllaa ngi ni te gisuma ko voilà mu nekk nga xam te ni moom département Kër Massar rek moo ko ñor te ci social développement rek mi ngi def lu bëri loo xam te ni sax lu bëgg moom bu toogee nga koy wax quoi même promesse yi mu wax fii yëpp ak lépp lu ko waaye euh, wax ak lépp même mu koy li président daa wax xanaa mu bañ ko dégg mais mu dégg mais da da leen ciy jàppale ma bëgg ngeen mayal ma ko loxo parce que parce que ñeneen ñi ngi fi 40 jeunes lañ formé 40 jeunes man ko président bëri na de nañ jël 30 mun ma noo 40 yi nañ na nañ lañ jël bilaay walaay parce que euh, demande bi dafa bëri woon mu ne ma après ma ne ko mu ne ma après mën nañoo def yeneen formation yi nga xam te nii voilà si yeneen yeneen yeneen activités yoo xam te ni dañuy formé waat booy parce que euh, ñu ngi soog a te affaire bi fi yem ma bëgg ngeen may ma ko loxo mu ngi mu nekk nga xam te ni voilà bu baax la te tamit lépp lu mu wax da koy dem je vous remercie président maa ngi lay gërëm ak ñi boy loolu am na solo communication digitale je pense que ni fi toll nii eh, produit boo mënti jaay moom moo koy loxal n'est-ce pas monsieur Lo voilà léegi yaay sama consultant ok mën nga waa tontul question wu raa officiel dana la ngay xaar ci actualité culturelle. waaw dama koy nuyu d'abord vraiment am na lu mu wax lu am solo ndax tout à l'heure dafa évoqué pas mal de dédication ci ay propos yi nga xam te génne na ko te yaakaar naa ni ñu fi nekkee am nañ ci part de responsabilité d'autant plus que dañoo nekk ak suñu ay jeunes frères dañ nekk ak suñu ay jabar donc bu ñu nekkee tey par exemple des références sur beaucoup de choses yaakaar naa image boobu noonu ak éducation boobu war nañ ko porter à travers famille ñi nga xamante ne ñoo ko plus particulièrement suñu environnement bi nga xamante ne moom moo ñu moom moo nekkaat ñun tamit aussi vraiment dañ leen fi war a mën a sóoraal d'autant plus que boo nekkee un ami wala nga nekk tey par exemple tey une personne lambda daa boo xam ne dafa dajee ci ñun yaakaar naa li lay nawee ci benn affaire rek mooy ci cadre ci éducation ci euh, comportement donc pratiquement yooyu la ñu mën a nawee donc boo toogee ba wax nga ni mu dëgg dèjà boo xam ne benn poids bu wàññeeku sa diggante ak moom même bu nekkul sa doom wala bu nekkul donc moom il est allé plus loin dem na ba ci biir njaboot donc moo lay wan ni tey par exemple tey ñun suñu image moom mooy tey refléter suñu biir ay njaboot donc ñooñu war nañ leen jàngal li nga xamante ni moom moo war a nekk suñu génn ñu mën leen di leen ko bàkkee mais bu ñu nee tey par exemple doomu diw la. mu war a nekk koo xamante ne kenn du ne jam kenn ne kii du nit koo xamante nit ku baax wala dara donc encore une fois vraiment loolu lu ñuy war a mën a élargir la aussi tamit ci biir population beneen point bi nga xam te moom laa bëgg a évoquer moom mooy question bi ñuy xaar ci man man au contraire man maay tax na xool nañ lan laa leen mën a servir man incha allah bi je suis prêt à tout te loolu moom incha allah merci kon je pense que nii li ci jot a waxtaanee kenn ku nekk mën na ci am jàngat am ci njëriñ boo xam dina ko ci jëlee dañuy def tour de table rek ñu tàggatoo alami comme yaa ngi micro bi euh, lan ngay def sa last word. waaw xanaa xanaa di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi seen idée parce que instant yi guddi na mais wax dëgg yàlla boo xoolee liñ naan liñ naan euh, mooy mooy nit koo toog te amul loo koy jiib wala loo koy xalaat dafa am peut-être sécu liñ naan sécurité. dafa am ñi nga xamante ne ñun bi ñu defaree centre bi fi war a mën a def ba bàyyi ko fi heure buñ dikkaatee fekk ko ak nañ ko bàyyi woon dafa am ñu ko waral mooy waa Delta Force waa Delta Force so wax dëgg yàlla benn kii la euh, service de sécurité sécuritaire la bu nekk fii bu nga xamante ne ñu ngi def liggéey bu am solo lii depuis ñu def ko ba tey heure bu ñu ñëwee nii lañ koy fekkaat mu resté intact ce qui veut dire que kon ñoom ñu ngi ciy bay seen waar te tout récemment rek def nañ fi ay euh, garab yu bëri ñu fi saxal def fi loo am solo l'eau et la vie bi ma gisee affaire bi loolu laa njëkk a wax donc aussi di sant tam si ñaari jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu doon servir ndogu yi bàyyi seen lépp Jaja sonn na ci vraiment. sonn ci wax dëgg yàlla la promo da ngay jaay jus ah. Jaja waaw ay jus neex jus <laughs> neex waaw. waaw kay di remercier ñëpp le président Moussa Camara monsieur monsieur Cissé ak le grand euh, Dame Dame wax dëgg yàlla ak suñu papa yi wax parce que heure bii wax dëgg yàlla sedd na guddi na ku nekk waroon toog sa kër ñu lay léwalal ñun ñu toog fii di débat ñu ngi jéggaluwaat di tuubaat quoi wax dëgg yàlla merci beaucoup. monsieur Cissé sa participation ci débat bi tey mu doon le point bu exceptionnel. parce que je pense que c'est c'est une première. ñu gis na fii mais aussi c'est une première aussi. am benn intervenant boo xam ni dafay ñëw ci côté bu gën a critique aussi parce que dañ ko soxla woon.

waaye yàlla xam na ni damay wax sax Sénégal service bi tax ñu am chance tey mooy yéen ndax mu ma waroon fekk ci zone nord bi tey euh, comme yu genre yu mel nii mais comme tamit suñuy frère ngeen confiance bi ngeen am ngeen def tey euh, premier weekend ngeen jël ñu tey euh, jagleel ñu ko mooy président Pape Moussa Camara ak président Dame ak man dañ ci am mbégte ak kontaante bu baax ba pare tamit di leen ubbil bunt lépp loo xamante ni expérience la ndax tamit yàlla bu defee euh, fi nga xamante ni tey mën nañ wax ni ki koy xalaat muy sénégalais bi muy xalaat suñu yëf dafa dafa ne woon seen local yi mooy jeunesse bi ñu nekk artistes yi au ñuy def di jaay ñu ñu ñu ñëw di leen exploité kanaal di leen exploité dinañ leen fexe di leen feeñal dugal leen ci benn seen local bu ñuy tuddee suñu yëf muy benn sénégalais boo xamante ni Mamadou Ba tukulóor la mu ne dama koy def bu ma ko defee jox ko sénégalais ñu mën suñu jaayee seen seen euh, locale yi nga xamante ne moom la ñuy am ëllëg ñu mën koo jàllale ay Nollywood ak loolu ñu bëree bëri sax dañ naan Marodi moo ko moom ak déedéet mais benn sénégalais moom moo xalaat loolu ne dinaa jàppale ay ndawu artiste yu Sénégal yàlla dogal bañ koy lancé man mu fekk ma fa depuis le 7 novembre 2019 kon expérience boobu ñu ni tamit bi ñu ko amee liggéey te bi ñu koy lancé sax dañu ne du ñu ko yóbbu parce que canal dafa am ay formule dafa am évasion police am accès plus am accès simple léegi ñu ne nañ ko def ci accès simple ñi nga xamante ni dañuy fay 5000 par mois ñu dugal ko pour ñu mën a am accès ci seen boobu ci suñu yëf kon nag dañ leen di ubbilaat buntu yi ci expérience bi nga xamante ni am nañ ko ci wàllu audiovisuel ak li nga xamante ni mooy wàllu communication lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko fu mu war a yegg ci seen i affaire ngeen war ko jaay ñu mën ko médiatiser au niveau international ñun taxaw nañ pour euh, direction bu ñu leen mën a yóbbu ñu mën leen fi yóbbu même yeneen seen yàlla dogal na ñu ngi ci seen yu mag yi. loolu ça va profiter à tous les artistes. waaw parce que fii dafa bëgg a tàqale. waaw waaw léegi beneen bi même seen yu mag yi comme yàlla dogal na liggéey nañu benn base Diagne ci groupe Escaf Télécom ba mu gaañ ñu ñun tamit ba léegi ñu ngi biir Escaf Télécom lépp loo leen soxla ci la presse parce que presse bi tamit yàlla dogal na lépp luy formation ak éducation muy les journalistes professionnels yi nekk ci département bu Kër Massar. yàlla dogal na ni loolu ci sama loxo la nekk même préfet bi mu ñëwee di ma laaj revendication yi nga xamante ni les écoles ñu ngi ma ne ko lycée Jaxaay ak aussi tamit am na benn école publique bu nekk fii ci ginnaaw mécanicien yi noonu ñu ko abandonné loolu tamit war nañ cee mën a wax ci insécurité bi daaw wax na sànq ci désencombrement bi nga xamante ni am na fi euh, artistes yi war nañ cee jouer rôle bu rëy rëy loolu daf may fàttali benn version boo xamante ni borom bi subhaanahu wa daf koy wax parce que man suma gisee daam sama xel dafay daal parce que daam bu njëkk dafa daan jël ndaw ñi di leen defal formation man ma leen di defal conférence religieuse ñu toog daal di jàkkaarloo léegi nag damay wax yéen am ngeen sens parce que ñun bi ñuy nekk fii di góorgóorlu di taxaw amuñu woon ay leader yu mel ni ay Pape Moussa Camara xam ne dañuy gis ay ndaw di def dara ñu ñëw ci jàppale leen mën leen accompagner aussi tamit dañuy gërëmaat tamit maire bi Cissé mi ngi nii aussi Askia mi ngi nii ak ñeneen ñom ñi leen jox espace bi parce que tamit ndaw bi boko ko jox ko ben espace bo xamanteni dina ci exploiter li nga xamanteni moy compétence am kooku dimbali ngeen muy version bi may wax rek bi yàlla doon wax pour yéen artiste ngeen xamni da ngeen wara a am taxaway li doon wax naan al fasad fil barri wal bahri bima ma kasabat ay nas muy la pollution environnementale bi nga xamanteni mom mo am mune euh mbonte gi am ci jaww ji ak jéeri ji muy géej géej yépp mune génnul fenn lu dul ci loxo ni ñi la nekk kon ñu ñooy indi pollution environnementale boobu léegi nag taxawaay la laaj euh, boo xamante ni ni ngeen taxawee nii tey def ko ci benn débat boo xamante ni dañ koo di weekend yi di ñëwaat ba fii koor gi jeex ak ni ko euh, kenn waxee léegi euh, boo leen ko ubbee rek da ngeen mën a am loo xamante ni di ngeen ci teg ci table bi kon président Pape musa xam nañ ni xat-xat yi bëri na te koor gi moom jàpp day am ak staff bi nga àndal yëpp ñu ngi lay gërëm aussi Cheikh yow tamit ñu ngi lay encouragé di encouragé li nga xamante ni al al amin la. aussi tamit di jéggalu mon frère parce que ñun moom xam ngeen surtout journaliste boo xamante ni politique la dañ lay dañ lay bëgg sonal dañ lay bëgg a mbëkk dañ lay bëgg a dóor Pape Moussa sax lancé naa ko benn affaire boo xam ne maa ngi waajal émission comme ça dafa ragal. dina ba ba mu développé lu bëri président Dame ñu lay encouragé bu baax a baax di la gën a dénkaat ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñaa merci beaucoup monsieur Cissé vous étiez dans votre rôle loolu kenn mën na donc euh, euh, grand dame lan ngay tàggatoowee parce que échange yoon na solo. trop tey amoon am nga loo ci apporté lu positif. macha allah les gens ont aimé quoi. Bah waaw euh, yaakaar naa ne bëgg nañu wala amoon nañu mbégte ci li nga xam ne tey jii moo ñu ci indi donc l'histoire retiendra que bokk nañ ci invité yu njëkk man dama leen di sant di leen gërëm.

il porte un projet qu'on a déjà rédigé les crédits de l'environnement on l'a rédigé mom ak ak Bingel Jolof nga xamné ñom ñoko ci donc ci aussi ma aussi apport consulter du début à la fin du déroulement ñun Nous aussi pour apport donc aussi ndaw lañu du mais parce que dama gëm actuellement

nañ boole ci waxtaan bi ñu concevoir ay idées ñu defandoo ko mais bul def ba mu sotti ba pare ñëw ñu leen yëgal man message boobu laay jàllale di tëjee di invité ndaw ñëpp ne ñu ngi jëm ci ay élection dix-neuf candidats la am kenn du wax kenn man de du ma ñëw ci yow campagne la du ma ñëw te man soo ma fekkul ci urne ba doo xam ko may wote loo ma jege jege sama bàmmeelu biir ci loolu laay wax nii.

parce que présent plutôt qu'à une chance de 10 ans ce que ñaari mandat foofu la tëjee sa kàddu di leen wax ni ku si nekk jël sa responsabilité semaine prochaine dinañ dem ci ay urne ku leen neex boteel leen wala mais quand même prenez votre responsabilité parce que jël micro aussi wax revendique au mais quand même nga jël ses responsabilités à deux mais c'est important parce qu'il y va 10 ans après foofu laa jox di gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo ngi fi di gërëm Pape Moussa. merci beaucoup xam ne ñoo ngi fi jërëjëf. merci beaucoup yow ci invitation bi nga yombalal ñu ko ñëw aussi ci partage bu am solo ngay téye xale rek ci prise de responsabilité président Moussa Camara ñun aussi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sa teewaay di la bàyyi rek nga jëf sa mot de la fin. bon mot de la fin bi du gudd mais c'est tout juste de remercier ñi nga xam te ne ñoo fi toog ñëpp vraiment bàyyiwuñu kenn ndax je pense que. ngeen bokk ci partager toolu bi nga xamante ne moom ngeen organiser fii nii bon après ngeen toogaat fii encore une fois bàyyi seen kër ñëw toog fii pour euh, juste partager plateau bi ak ñun vraiment loolu du lu ndaw d'autant plus que xaaru moom sax tamit ñëw fekk ay plateau nii comme si benn ko waxee donc toujours moom mooy demander à ce que dinaa la invité ci benn ma ne ko non amul problème dafa bëgg ngeen jàkkaarloo voilà donc xam naa ne incha allah moom ngi si projet boobu noonu mais tout en sachant que lu noble la vraiment man je vais partager des plateaux mais ak ndaw ñi parce que tamit dañoo nekk suñu fierté wala nekk tamit tey développement dëkk bi nekk yaakaaru dëkk bi bu ñu amee tey ñu jël seen initiative organiser lu mel ni j'aimerais bien que tey par exemple man muy keneen ku mën a doon ñu ñëw accompagner ñuy xaar su donc li ñuy xaar su ñun du lenn du lu ñuy yëkkati di leen jox duñ leen di defaral mais bëgg nañu tey par exemple tey di sentir seen bopp su ñun te loolu c'est très important ndax souvent damay faral di wax nit ki mënoo ko jox lu ko yàlla joxul mënoo ko defal lu ko yàlla defalul mais c'est juste que nga yëg ko rek nga boole ko sa bopp rek loolu ça lui suffit largement donc man loolu laay lancer un appel di ko wax ñëpp. donc sa question boobu ngay wax noonu loolu laay tontu politiciens yi ndax man politicien moo toogal rek damay xool sama bopp si yow su ma sentir sama bopp si yow vraiment daf may permettre ma toog bañ a dem xam nga moom may gënal ma ñëw di ànd ak yow après du ma li ma bëgg après finalement da ngay toog da ngay dugal nit ñi si biir am na ñoo xamante ne bëgg nañ la bëgg boo xamante ne tey ba boo leen ne diw laay àndal mën nañu ànd ak yow te donc loolu déjà benn poids de kii la boo xamante ne donc comme ni ñuy faral di wax rek am na loo xam ne boo koy def da ngay da ngay bàyyi xel lu bëri mais nag local yi moom maa ngi ciy xaar sama bopp te boobu damay xam ne ñi ma bëgg ñoo ma nar a jàppale. incha allah boobaa nag boobu dinaa xam ne ñii bëgguma leen gàcceel dinaa leen jàppale nga xamante ne aussi tamit dañoo contre sama idée tamit ma convaincre leen ñoom participer sama politique ñu mën ñu jàppale ñu ànd liggéey seen Sénégal bu comme que man maay tëj nag damay profité rek ci ci ci ci occasion bi di remercier le président Moussa Camara mais di remercier aussi Baka parce que yaakaar naa ni depuis le premier jour ba ñu commencé démarche ba léegi par le biais de Bako benn boy moom mooy ki nga xam ne moo ñu gën a yombal pour ñu accéder ci président Moussa Camara donc di ko remercier bokk na ci leader yi nga xam ni mën naa ne sax c'est le seul leader bi nga xam ne moo tegagum tànkam bi ñu defaree bërëb bi ba léegi moo fi tegagum teg ñu kontaan ci vraiment parce que li nga wax sànq dafa am solo maanaam mën nga nekk ak ay nit ñi leen apporter mais yëg-yëg moo am solo maanaam ci yëg-yëg boobu noonu la ñu sentir tey ba invité la nga ñëw toog fii nii mënoon nañu invité keneen mais yëg-yëg bi ñu am du li nga ñuy apporter parce que daanaka li fi nekk yëpp boo dee xool ñoo ko defal suñu bopp seet nag am nga lenn lenn loo xam ne participer ko ci dimbalee ngeen ñu ko mais li fi nekk daanaka ñoo ko defal suñu bopp donc yëg-yëg bi rek. ñun moom mooy sedd suñu xol et ñu ñaanal aussi lépp looy séntu ci Kër Masar wala lépp looy séntu ci Sénégal yaa nga ko suñu borom defal parce que ñun kontaan ah. na ci yow suñu xol seet na ci yow baax a baax lii nag nga tàmbali ñun mooy du ñu accompagner ci ndogu yi ñu yaakaar ni que nekkul tey kese la yam di nga continuer ñun ci yeneen week-end yi di ñëw incha allah ñu ngi xaar loolu xam naa ne bakka du ñu fàtte voilà di remercier aussi ñi nga xam ni ñoom ñoo jàpp ci organisation bi parce que liiru liggéeyu benn du liggéeyu ñaari nit directeur ñu lay remercier bu baax baax yow it amuñ sa parce que da ngay jàpp ci affaire depuis le début amul lenn lu ñuy tëkkati rek nga ne non lii mënul nekk xaaral ma dem jéem ak waa fii de laa mën a yem donc ñu ngi lay remercier yow bu baax baax parce que c' est bon de le faire en public ah il faut le dire y a des trucs yoo xam ne mënuñu ko toogaale parce que buñ ko toogaale dañuy doon ay naafeex dañuy doon ñoo xam dañoo soxor te ñu ne sont pas des ñu defalee lu baax dañ koy wax. merci beaucoup et merci encore à toi, Jesse. Tu es jeune, tu es très apprécié. Donc continue sur cette lancée. On te voit demain quelqu'un. nga nekk benn nit ci biir Kër Moussa Fian voilà tout le maire aussi il est parti de ses propres terres il continue de voler et tu vas continuer de les tout le maire vous les jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aussi ñi nga xam ni ñooy presse bi parce que tey bi ñuy soog a on était avec KF Info mu nekk sunu premier premier

tey jii nii maanaam lépp lu ñuy def rek daanaka jëndul ci biir ak man dër bi élément ak man ñoo ko def peinture bi décoration bi lépp c'est des acteurs culturels maanaam ñu kenn fenn ne ko kaay defoon ñu leen lépp ñooy simmeeku def yaram neen tuure ko suñu bopp parce que loolu moom moo ñu war te suñu doole fa la te bu laajee chaque jour ñuy génn suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm li ci def dañ ko def ba keroog ba keroog ñi am lu ñu bëgg te li ñuy sonn tey jii soo nañu ko pour ñun de man amaana sax du may jariñoo ci li nga xam ne moom mooy te parce que xaw ma lu yàlla def suba mais samay rakk ñoo tax may sonn suñuy rakk ñoo tax ñuy sonn suñuy jarbaan suñuy doom parce que ñoom ñun dañoo am benn rendez avec ñoom tey bu ñu demee luñu leen dara fii nii ñun li ñuy wax suñuy grand frère bàyyi luñu tous ñoom bu ñëwee loolu la ñuy wax et et rôle boobu waruñu ko jouer tey dañoo nekk ñun à cheval entre deux deux générations génération bi war ñëw ak génération bi nga xam ne dañoo dem ba pare mais génération bi ñu nekk nii nii donc ñun ñoo bokk génération ñun ñoo gën a éveillé pour man prise de conscience bi si ñun la ëppee donc on doit réaliser pour nos enfants on doit réaliser pour nos petits frères. ni ko grand dame waxee tey jii nii kenn ku nekk dafa war a jël responsabilité ci élection yi ñu jëm parce que tey képp ku sànni sa carte rek ki ko sànnil xaw ma ku muy doon.

mis à part ça aussi moom mooy taaral suñuy affaire Amina Zundu mu ñëw jàpp ci ak ñeneen ak ñeneen maanaam bu ñu limee rek mën ñëw fàtte ñenn ñi mais am na ñoo xam ne mënuñu leen ñàkk ba ñu tudd tey jii nii képp ku nekk biir ak man ñu lay sant di la ci sama baat parce que je suis le coordonnateur certes nag maay toog fi di présenter mais je reste le lépp lu ma war a def lu ma war a wax dinaa ko waxal nit ñi parce que ñun ñëw nekk fii chaque dimanche di fi rey dañ fiy nekk de huit heures ba vingt heures ku mujjee gis sunu vidéo bi ñuy defar lii ne bi ñu fiy jógee guddi la mais gars yi maanaam dañ cee ànd ak Pastef ànd ak gëm-gëm gëm ni li ñuy def ñi dafa war a moo tax kenn ku nekk day sacrifié wu bu ñu ñëwee suñuy poche daanaka bu ñuy ñibbi du ñu yóbbaale dara des fois dañuy bàyyi suñuy bërëb liggéeykaay ñëw toog fii nii pourtant ak ñoo am lu ñu war a def ak ñoo am ñu ñu war a teral mais dañuy baal parce que tey ñun dañoo am lu ñu war a réaliser soo ko dem jaar jaar la si ñun nag donc di remercier ñëpp seen teewaay di leen jox rendez vous da nga am leen la war a sànni. beaucoup merci beaucoup donc ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ñibbi si jàmm di leen jox rendez vous incha samedi prochain merci beaucoup jërëjëf.